nuyu nanu la ziyaara la ndokkeel la ñaanal la jàmm di bàyyi xel ñi tawa tëdd ci kër yi ñi taw a tëdd ci lalu hôpital yi ñi taw a di doxaaleeg seen jàngoro fépp fu waay mën a nekk lu lay métti li ko dalee ci catu kawaru bopp ba ci wewu tànk yal yàlla saafara lépp di ñaanal yàlla ñi nekk ci xat-xat yal yàlla génne leen ci buñ leen tuddee sunu xel dem ci ñi ci kaso yi yal yàlla génne leen fa ñu delluwaat ci seeni activité bu ñu tuddee ñi ci kaso yi sunu xel dem ca ña ca kaso bu mag ba muy bàmmeel yal yàlla yërëm leen jéggal leen yàlla woyefal suuf ci seen kaw ñoom ñëpp ñu wax laaye ji Seyda Adama Seck séddoo muy yaalayta qawmi yaalamuuna bi ma gafara li rabbi wa jaalani min al mukramin di bàyyi xel ñi nekk ci yoon di tukki yàlla sàmmu leen ñu dem ci jàmm fekki jàmm del siwaat ci jàmm fekk nu si jàmm sunu xel day dem ci sunu Seyda Seyda Zeynab Fall di ñaan yàlla mu delloo siwaat ko ci jàmm ba mu àndaat ak nun ni mu baaxoo doon ko ànd nun kenn ci ñooña sunu ñaan ci moom nangu yàlla dogal na delsi na ci réew mi delsiwaat na tamit ci plateau bi mu Oustaz Mouhamed Diop ñëpp namoon ko ñëpp di ko laajte ñëpp di ko bégee ñëpp di ko safoo yàlla dogal na mu jóge ko ca dëkk bu tedd ba tabaarakallaahu sunu ñaan yàlla nangu ko moom it yàlla na yaa ñaanam nangu ndax ca Kaaba ga la taxaw janoo Kaaba ga def vidéo mboolem ku nekk ci DTV rawatina plateau bii di ndénkaane mu ñaanal la kon jërëjëf Oustaz Mouhamed Diop taqabbalallahu lana walakum euh, ak mboolem képp koo xam ne demoon na aji fu mu mën ci bàyyeekoo ci àdduna bi yàlla na yàlla nangul la sa di ñaanal yàlla ñu nekk ci néegu sëy yàlla barkeel seen sëy jubale leen ak ñanu nekkal yàlla may leen njaboot yu barkeel te teg leen ci yoonu siraatal mustaqim di ñaanal sëriñ daara yëpp yàlla jàppale leen ci daara yi jàppale leen ci ndongo daara yi kilifa diine yi yàlla sàmm leen xaar leen dëgëral leen yàggal seen taxawaay dellusiwaat nañ ci palaato bi tey euh, ñu am fi ñoo xam ne ci kër gi lañ bokk waaye ñoo xam ne ci palaato bi lañ bokk waaye koo xam ne yi tamit ci réew mi la bokk di mag danañ ñëw ci moom léegi sëñ Mansour mi ngi sama ndeyjoor ñu sant ko gërëm ko journaliste la macha allah nekk ko ñu ràññee ci kër gi tey mu ñëw ànd ak ñun ci ndénkaane sëñ Mansour ñu ngi lay ziyaara baax di la sant di la gërëm Seyda Fatima tamit ci ndeyjooram moom i tamit eh, teew na tey borom eh, tabaarakallaahu laaya ju am solo ji <laughs> nee naa ko danga ma jàngalaat laaya bi ndax macha allah ñu sant ko moom it gërëm ko mhm. waaye tey ñu am invité spécial émission bi weesu dafa am élément bu jàlloon sëñ Mansour mi def ko ak moom àdduna bi ñëpp seen xol yëngatu bi ñu déggee li mu wax ci euh, vidéo bi ñëpp di euh, woote di wax ne ñu wéyal sax waxtaan ci loolu far ñu demandé woon bu nu mënee am sax mu ñëw fii ci plateau bi moo nu gënal mag la boromi activité la waaye mu nangul nu ko muy sunu papa Bokar sàmba Dieye ñu sant ko gërëm ko ci wuy si bi di ko ñaanal jàmm waaye Oustaz Mouhamed Diop niñ ko waxee léegi moom it teewaat na macha allah ñëpp namm ko ñëpp di ko laajte dikk na si jàmm yàlla na yàlla dogal tamit Seyda Zeynab del siwaat ak nun ci jàmm incha allahu taala su ko defee dañuy dem studio de seeti Modou Mbacke këru yëglekaay yi li mu xëyee moo nu koy jàngal ndax it euh, am na ñuy xaar ndénkaane waaye ci biir ndénkaane am na ñoo xam ne revue de presse bi buñ ko seetaanee rek dem defi seen i activité Modou Mbacke teew salaamualeykum. waaleykum salaam yaa oustaz. Modou Mbacke na nga fanaane. ñi ngi sant bu baax suñu borom. naka sa weekend. waaw sant yàlla rek kurkuri ko ci kocal. tabarakallah Alhamdulillah. këru yëglekaay yi lan la ñu yeewoo waaw lu ñu yeewoo sakkan na bu nekk la ko ñor les échos xëy na PDS candidat bi nga xam bi mooy Karim Wade ci ay mbiram xajam ba yegg ci lool yëglekaay bi nee na ay député PDS juróom lañ toll bind nañ lettre président Wade ngir Wade ci boppam daal soppi doxalin indi plan B ndax gis nañ mbirum Karim Wade moom daanaka bu defu ndànk bay wéy na mbuus ba noppi ndax ak bindum ci liste électorale yi bañ nañ ko ca mënta nekk mënta doon candidat li fekk nekkut électeur lii moo ay jegeñaaleem nañu daal jot na président Wade soppi doxalin député Serigne Maodo a Dolly soxna Astou Mbacké Moustapha Diop Roqee Diouf ngin gi néew ak Mor Kane ñoo bind bataaxal bi waaye nag xel daal la mu joxtu mooy mbaadu Maître Madické Niang moo a moom itam xëy na wàllu gudimel mbirum parrainage bi ak candidat baneen di candidat benn bokk yaakaar yëgle kaay bi nee na moom fi ñu ni xaalis bare bare bari la ci président Macky Sall génne ndax sax dèjà moom jël ay ay téléphone di woote ak joxe ay message di woo ay sénégalais am na benn soxna boo xam sax moom nee na jot na message yu président Macky Sall waaye moom euh, pare ne wut Macky Sall mu ne que loolee jaaxal na ko lool ak doxalin jël di ko campagne jëm si wàllum parrainage bi surtout moom it ñëw ba tey ci mbirum parrainage bi ak koppar gu bari bi nga xam président Macky Sall da koo génne yëgle kaay bi nee na demal fe nga xamoo dëkk ba ñuy wooyee mbar mbar ci boppam day foofee un million cinq cent mille le ministre conseiller bi aaxoon ko mën ci taabal ji

léegi jeexagul ndax Khalifa Sall de xeex bi suñu diggante Macky Sall mooy mbirum meerum Ndakaaru bi ginnaaw décret président Sall bi jeggi Khalifa Sall ci meerum Ndakaaru bi fi mu toll nii Khalifa Sall moomee président Sall mi ngi cay pexe ngir bëgg ko war ndombo jekkali ko nangu maire bi ci moom Ousmane Tanor Dieng ak mu ngi ci ay pexe waaye bëgg a wuutu Khalifa moo xam benno moo xam waa kër Khalifa Sall yooyu le yëlekaay ba neen lëkkatu jëmee itam xëy na réew mi tolluwaay bi ci jafe-jafe yëlekaay bi ni géej gi day dafa sàmbara weekend ba ñu génn lu bari ñàkk seen bakkan yëglekaay bi nenam juróom-ñaari nit faatu nañ ci waaxi Ziguinchor yi ñett fe nga xamooy ca Bargny fe nga xamooy Ziguinchor moom benn chalutier moo fa daal di suux yóbbaale ñeenti bakkan beneen gaalu nappkat suux ñetti gana itam jàpp ñeent ñàkk seen bakkan ci wàll gi fee Bargny moom lab ga moo fa amati ba ay nit delluwaat ñàkk seen bakkan l'observateur moom itam ñëw na ci beneen mbir ca mooy sunu gaynde yi ak lan am dembu, ci seen diggante waa Madagascar yëglekaay bi ni kenn fo woo ko woon de waaye am na sunu gaynde yi lan wane démb daanaka euh, na pon pon na ko yëgle kaay bi nag yëmu ca ñëwaat na ci beneen mbir mooy gàllankoor bi nga xam te ni bii askan waa ngi koy dund ci ay jafe-jafe demal ca Kolda yëgle bi nee na ñeenti at boobaak léegi président Macky Sall lancé na plan Sénégal émergent waaye ba léegi émergence moom amagul ca Kolda dëkk ba ñuy wooyee Boussoura du ko weddi ñoom ñooñu daanaka ngir jigéen man faa wasin guddi bu dee guddi la dañuy taal seen ay lampe torche wala ay lampe tempête ngir mën a nit ndax ñàkkum courant ñàkk ay yoon yu baax Mbaye Dia Thiam moom jàpp na ne fi mu toll nii Sénégal kenn mënta wax émergence ca fekk na émergence balaa mën a am day fekk nit ñi ku wopp mën a faju ndax waju faju day am ba noppi nga soog a mën a liggéey yaa oustaz. Euh, jërëjëf euh, Modou Mbacke am na solo macha allah. ñu sant gërëm naa la bu wér. jërëjëf tabarakalla macha allah. jërëjëf Modou Mbacke xam naa benn waxtu dana ko gën a yaatal ñëpp xaar ko incha allahu taala ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko Cheikh Mansour Sow ñu bàyyi la nga nuyoo këru yëglekaay li nu yeewaloo ci jàngat. waaw ah, asalaamaaleykum wa rahmatullah oustaz Makhtar may nuyu mbokku téléspectateurs yi yu Dunia télévision di nuyu ñi ma bokkal plateau bi am mbégte lool teew ci plateau bu ndénkaan jàpp ñaari ponk rek ci li nga xamante ni moom mooy ci kër yéenekaay yi bu ci njëkk jëm ci wàllum coow li nga xamante ni am na ci biir parti démocratique sénégalais. rawatina nak ci candidature ku fi mën wut wala plan B wala bu see sax pour wutu fi ki nga xamante ni moom Karim Meysa Wade parce que plus ñuy avancer ci li nga xamante ni mooy jëm ci élection yi parce que li ci des bu doon wax six léegi mi ngi wàññeeku ba léegi amaguñu candidat boo xamante ni fiable la ndax tey jii gis nañ li nga xamante ni moom mooy seen recours bi ñu mujjee am que euh, dencee ki nga xamante ni mooy cour suprême daf leen neenal ci wàll woowule mu mel ni que ni plus ñuy jege élection yi rek dafa mel ni que ni ñoom seen ëllëg di gën a lëndam te jot na nag tey jii ni ko député yooyu waxee ñu leeral leen wax leen que ni ñun dinañ am candidat kii mooy suñu candidat ci élection ci nasaraan dans le clair obscur beneen ponk bi ma jàpp mu jëm ci wàllum xew-xew boobu la nga xamante ni mu am fële ca Kolda dëkk boobu la nga xamante ni nag jigéen ñi bu ñuy mucc dañuy taal ay lampe torche dafa nekk loo xam ne dafa waroog lool li nga xamante ni ñun lu ñu digoon la ndax eh, njiitu réew mi bi muy taxawal li nga xamante ni moom mooy couverture maladie universelle dañu waroon taxaw fexe ba tey jii ci gox ak goxaat yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ñëpp yem maanaam équité la waroon a nekk mais bu ñu demee ba tey jii am ñoo xamante ni dañu am macha allah jumtukaay yëpp bu ñuy mucc mucc ci ay hôpitaux yu am solo te ñeneen yi nga xamante ni ay jigéen lañ ñu bokk ñoom ñëpp réew mi day dina xamante ni bu yàggee mooy di am frustration ci réew. Oustaz mm-hmm. Matar. loolu am na solo sëñ Mansour jërëjëf Seyda Fatima. daa bi diis na de oustaz Makhtar. ah ah kay da nga koy yanu nag <laughs> da nga koy yanu. ñu ngi ziar bu baax a baax da ngay koy mottalee dindi kii bi rek. <laughs> ah xanaa. gerefaas bi rek mu mat. ak ñàng bi ñàng bi gën a. incha allah <laughs> euh, ma ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu ñi nga xamante ne euh, ñoo ñuy seetaan euh, revue de presse bi tey lu ñu indi am na solo bu baax li ci mel ni PDS ñi nga xamante ne ñoom ñoo wax ak Ablaye Wade je pense qu'il était temps ndax nit lépp li nga xamante koy teg moo xam ci biir këram la moo xam ci lu muy euh, diriger je pense que war naa am plan A plan B ba sax ba ci plan C parce que ñëpp xam nañu ne ba moytuwul euh, ak euh, mbirum Karim Wade nu mu demee ci jamono ji ba moytuwul du du du mujj fenn donc mieux vaut que ñu am plan B parce que sinon moom je ne pense pas que bu ñu jàppee ci Karim Wade kese kese dina mën a présenter wu. beneen bi mooy ñi nga xamante ne ak parrainage bi est-ce que mën nañu dabaatal am candidat bu bees kooku dem. Euh, uti ay signature pour parrainage bi mais parrainage bi même bu fekkee ne ne am na ay nit ñoo xamante ne euh, jot nañ ko parrainer si li jëm ci mbirum euh, candidature am gis nañ ne dafa am ay problème gu bëree bëri ñii naan ne mën na nekk ñii naan mënul nekk te affaire bi dafa nekk si euh, loxoy loxol yoon te gis nañ ni mu demee buur da cee dugal loxoom te ñoom ñaar neexoowuñu donc li gën a possible li ñu gën a gis ne mooy boo moytul Karim Wade du du nekk candidat à l' bii nii di ñëw donc mieux vaut ñu am am seen plan B moo gën a wóor daal que ñu jàpp ci Karim Wade kase kase d'autant plus que boobu ba tey ñu ngi wax ay mbiram mais mënul fexe ba ñëw toog feulé rek mu tok ñi naan dina ñew du ñew lolu dal worul té téyna téyna tey na xel euh, beneen bi mom moy ñi nga xamante euh, dañoo loru ci ci géej gi di leen euh, di leen mastaw bu baaxa baax xam nga à chaque fois rek je pense que ñi nga xamante ne ñoo nekk ci walu météo bi dañuy faral di prévenir mais malheureusement ñi nga xamante ñom ñoy ñooy liggéey ci géej gi dafa mel duñu dégg wala duñu top li nga xamante mom moy information motax à chaque fois ñuy gis yenn jéey yi di di répété wu beneen bi moom mooy ci mbirum euh, Kolda mu nekk euh, comme ni ko Mansour waxee mu nekk li nga xamante ne lu dëggu la parce que mënuñoo nekk ci vingt et unième siècle ba tey ay jigéen di di wasin amuñu sax euh, benn personnel médical bu leen mën a assister donc mu nekk lu doy waar boo moytuwul dinañ ci gis ay cas de yu bëree bëri donte ne ñaanuñu ko parce que dafa nekk mbir bu doy waar accouchement ki koy def mooy ki nga xamante ne da koo xam mais ñoom amuñu pexe moo tax ñu jël seeni matukaayu bopp donc mu nekk loo xamante ne dañ koy ñaawlu euh, na ci euh, nguur gi jël ay pexe yu baax bu gaaw a gaaw d' accord jërëjëf Seyda Fatima ñu sant ko gërëm ko Oustaz Mouhamed Diop. ah gannaaw bu ñu la ziyaare di la ndokkeel ci aj gi yal yàlla nangu lépp. ñu bàyyi la nga nuyoo ak këru yëglekaay loo ci jàngat. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu maa ngi nuyu waa ndénkaane yëpp. <laughs> di nuyu grand Mansour. di ñaan yàlla subhaanahu wa yàlla nañu yàlla nangul ñëpp. di nuyu tamit sama yaayu bopp mère Thiam ko wax. waaw <laughs> gëj <laughs> lii kër yéenekaay yi xëyee tey jii nii euh, li ci am solo mooy ne ci wàllu politik bi PDS effectivement su fekkente ne nañoo ngemb kenn euh, te ki nekk ci ki samp ndëndëm buggul kenn euh, samp ndëndëm kon ñoom war nañoo wuti yeneeni pexe moo gën ñu topp ci xalam boo xamante ne fiil yi tàndaruñu ko boo ca bëggee xalam boo moytul kenn du dégg li nga xamante ne moom nga bëgg xalam kon nañu nañu xooli li nga xamante ne mooy galeen bu baax bu fekkente ne bëgg nañ nit ñi nit ñi dégg seenu tëgg te bu boobaa mooy ne Karim may Wade dañ ko war a dañ ko war a utal koo xamante ne moo koy toftala di wax rek ne géopolitique bi ñu nekkee xale bu ñu daan joué ci benn terrain bu fekkente ne équilibre amul ci vent bi man damay jàpp ne dafa am ñu ay ñu àppoo vent rek <laughs> nañu profito dugal lu ñu mën balaa vent bi di balaa vent bi di deuxième mi-temps di jot <laughs> di jot te 2019 la deuxième mi-temps di <laughs> di di jotee daal hmm. parce que euh, dañuy faral di wax ni euh, piste benn fas bu fay daw lu yomb mu jël pee te fi ñu jëm fi mu toll nii foofu la réew mi foo lañ bëggee yóbbee réew mi parce que bu fekkente ne ay fasu naaru góor yu tolloo doole ñooy daw bu boobaa dina neex compétition bi dina neex mm-hmm. Mm-hmm. mais bu fekkente ne ay fasu yu góor nga jël ba pare jël ay xar nekk ci ginnaaw bëgg ñu course mm-hmm. ak yow dina doon loo xamante ne lu lu yéeme la euh, beneen bi mooy ñi faatu ci géej gi ñu ngi leen di ñaanal yàlla subhanahu wa ñi réer tamit yàlla na yàlla yombal ñu gis seeni koor parce que li gën a metti mooy nit faatu te gisuñu bàmmee la bu fekkente dund yàlla na yàlla may leen dund ba ñu gis leen euh, ci fekk ñu ngi ànd ak seeni seeni seeni seeni ruux bu fekkente ne sofaan wi tamit yàlla na yàlla may seeni mbokk ñu gis seeni seeni koor euh, di wax tamit ni euh, woote fóot te sumbo ku nekk ku mun woote fóot te ku nekk ku mun bi maanaa su ñuy wax émergence émergence mm. te réew mi am na ba léegi foo xamante ne nit ñi par exemple euh, su ñu waxee Kolda ne guddi nit ñi bu ñuy bu jigéen di mucc dañ koy niital toos moo mm. ne foofu dëkk boobu kon ku fay ku ñu césarienne kenn xalaatu ko mm. boo da ngay faatu moo ne kii mën a jur jur moom mun a wasine wasine foofu kon responsabilité boobu fort na de. res weesu na <laughs> weesu na weesu na weesu na fort na jiite réew gis nga eh, dañ mus a toog ak sëñ eh, Mbay si Abdou. Mhm. ñu demoon ziyaare ko Tiwaawoon ci biir néeg bi. Mhm. ni mu suufale boppam toog noonu. Mhm. mu ne ñu seen maam dafa benn bis dama ñëw fekk ko mu ne ma papa man nu ma nit ñi di woowe mu ne xanaa Abdou. mu ne ko déedéet nu ma nit ñi di woowee mu ne ma ne ko xanaa xalif général de Tidiane nee na ne ko sa maam Abdou ne ko xam nga ne kon jinaar bu fa xastaloo biir Tiwaawoon àllaaxira yàlla dina ma ko laaj rek daal di xaalu génn di dox ci ci guddi si nit ñaa ngi koy wut mm-hmm. mais masuliya boo xamante ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon abu abu bul ñaan ak jiite mm-hmm. fa innaha xizyun wa nadaamatun yowma alqiyaama mm-hmm. parce que njiit du doon lu dul toroxtaange ak rëcc bu keroog àllaaxira mm-hmm. yàlla nañu ci yàlla musal suñu lion yi yàlla nañ doon lion <laughs> balaa 2019 <laughs> amin jërëjëf euh, Oustaz Mouhamed ñu sant ko bu baax baax gërëm ko jërëjëf euh, faatima jërëjëf Mansour waaye sunu papa Bokar sàmba xam naa xaw ma yëglekaay dina ci am lu mu jàngat am déet euh, bu dul loolu yi ñu bàyyi ko mu nuyoo euh, papa Bokar ñu nuyu la ziyaara la dalal la ci émission ndénkaane euh, ci sa kër ci sa biiri njaboot. jërë ngeen jëf damay fay gum nuyoo. Mhm. bi ngeen ne asalaamaaleykum wa rahmatullah ñun dañu war a tànk julli wuñ fay. Mhm. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. moo tax maa ngi leen di fay. man ki ma jàngal. nee na ma bu la nee tomboo ngay julli. mu ne la asalaamaaleykum. xam nga yaa ngi julli doo mun a fay. Mm-hmm. waaye boo silmalee na nga ko fay. Mm-hmm. boo ko fayul foofu ak at. soo ko fàttalikoo na nga ko fay. Mm-hmm. li ci nees nag ci wàllu wàllu euh, yëglukaay. ay rajo. boo bëggee jàngaloo ko lu mu jàngul. du mun a sotti mus nañu fekk ay taalibe yu ndaw ñu yelwaan ñëw ci biir bund benn dëkk bu ñu wax suñ ci tafsir xam nga ay taalibe yu ndaw yu yelwaan ñun xalaatuwuñu lool lool bon mu ne waaw taalibe ana ci yéen ko ma mën a jàngal yusikumullah fi awlaadikum mm-hmm. ma ne ko man de maa ngi tollagum Euh, ci àgguguma fa dese naa benn équipe pour àgg fa mhm. layit ma ànd na ko mu laa toll mhm. des na wala mu sanaat pour mu mun a àgg fa parce que comme que àgguma fa su may bëggee jàng faa du sotti mhm. ma ne ci wàllu yëllu déglukaay yi <laughs> su ma ci bëggee wax wagga lu ma xamul yàlla def mu ne ma fu ngeen dikk ma ne ko jàmm mu ne xam ngeen Ceerno Xaalit ma ne ko ah xaw ma ko waaye moo jur umu xaalidu moo jur suma yaay waa ji daan man xaw ndekete jàngana sax man xaw ma ci laa musi gis nit ku daanu noonu xaw ma ci dara ñun dañoo defe noonu def feebar ñu bëgg a daw ñu ne deet du ngeen fi jóge jógu xam nga léegi am nañu problème ay xale yu ndaw lañ ay dix ans douze ans lañu ñu am nekk faa bu mu jóg malheureusement sarax nañu lu ëpp lu ñu waroon yelebaan daal di dem moo tax nag mhm. ci wàllu yéeglukaay yi ak lu aju ci rajo bi mhm. loolu sawal muxsanaatu la ku jàngul loolu ku jàngul loolu <laughs> mhm. mun ko wax d'accord jërëjëf dégg nañ ko bu baax a baax su ko defee kon mbokk yi tey du ñu ñëw ci éléments yi ñu doon indi yëpp ndax euh, gan gi ñu am moo ni toll ganu Sénégal la Euh, Sénégal gépp tey ñu ngi toog di seetaan ndénkaane bëgg seen bopp ubbeeku ndax dañu yàgg dégg problème mu Bocar sàmba Dièye ak euh, wàllu banque yi ceeb bi mu doon indi ci réew mi te yu baree bari ñu bari dañuy dégg rek ci euh, télé yeeg rajo yi te mu desee leer ci seen bopp tey nag ñu indi ko mu ñëw toog fii nii ñu bëgg lépp leer ci bopp nit ñi ba ñu xam li mu dundu ak ni mu ko dundee su ko defee dañuy dem ci waa régie transition dellu si waat dugg si ci euh, liggéey bi incha allahu taala. alhamdulilah di waxaat aoudu billahi mina sheytaani rajim waru waru seexu naa <laughs> boo waxee mu ne ñu waxaat aouzu billaahi mina seytaani rajiim xam nga rek su ko defee su ko defee kon tamit ñu ne ñu waxaat aouzu billaahi mina seytaani rajiim di ko nuyu bu baax di nuyu Louise maire mm. Thiama maire Thiama euh, fër ba tabaski ba léegi nag war naa war naa war naa jug nag nañ la xoojal euh, nañ la xoojal doomu taal nañ <laughs> ko waa doomu taal baax na ci fër ko ko xoojal su ko defee dañuy ñëw ak yow Mansour Mansour Sow mm-hmm. ñu bàyyi la nga ubbi waxtaan wi ak sunu papa Bokar Samba euh, yaa demoon këram yaa defoon élément bi mhm. ñu bàyyi la nga ubbeeg moom waxtaan bi posé ko ay question mhm. su ko defee ñun ñu dellu si ci insha allahu taala luñ ciy dolli ci ay laaj mhm. ñu dolli ko ci lu ñu ciy dolli tamit ci ay commentaire ak ñi ci plateau bi ñu dolli ko ci insha allah sëñ Mansour bismillah jërëjëf oustaz Makhtar yaakaar naa ni bu ñu waxee Bokar Samba Mamadou Dieye fii ci Sénégal du tur woo xamante ni danga koy dégg kooku kan la mais doon na am solo lool moom mi toog fii tey ji ci plateau bi mu wax ñu moom mooy kan mhm. fi mu xamante ni fa la jógee mhm. ba fi mu egg tey jile li mhm. kenn bokkar euh, jërë ngeen jëf man Bocar Samba Mamadou la ñu may wax fii nit ñoo jeex sant bi di baaja baaje <laughs> waaye ñun man Bocar Samba Mamadou la ñu may wax parce li tax dañu bañ keneen bu tuddee Bokar Samb ràññale waaye bu ñu nekkee juróomi Bokar Samb fale bu ñu nee Bokar Samb moo farfaawur man rek maay wuyu ñi hmm. nga xam ne kii ci la famille boobu la bokk hmm. yàlla def na dikk boobu suma yaay ak suma pap ak ki jur suma pap ku góor ak ku jigéen ci ñaari boor yépp foofu lañ judd suma yaay ku jur ku góor ak ku jigéen bi mu mën ñeent foofu lañ judd suma maam farba faawura falu na faa ndomb farba faawura boobu vingt-huit ans tubaab yi bi ñu ñëwee comme que tubaab yi boobu ko am tuur lañu bañ ñu jàpp ko yóbbu balaaji poste balaaji 1893 la gade am kumaanam ndax suñu papa 92 la judd euh, ku ñu kumaanam bu ñu faa yóbbu ci ndaar tubaab yi mu dee comme léegi nu tugalóor yi waxee bàmmel Abdul Qadir Kan bi nekk boori guurit ki dikk boo soyee du ko tiim mu xeexoon ak Damel Amari Ngoone Sabel fii ci wetu waawoon fu ñuy wax bu nguuy ñu ko bàyyee bi mu jógee fii bi mu demee tukulóor yi ñu ne kon ko duggee kaso dootoo kii ñu waray ko bi ñu ko reyee ñu suul ko foofu euh, ba bis bi ku dikka boosee fu naangi ak xir naangi c'est-à-dire penku ak sow rewo ak worgo boor bi Mauritanie ak boor bi kii ku ko tiim boo deewul tikka boosee rek ñu ne doo doomi yoon moo tax deewoo ku tiim bàmmeel bi ñu ne kii bàmmeel a si Abdul Qadir Kan moo jëkka nekk almaami Fuuta almaami yi nag bari waaye moom moo jëkka nekk képp ku tiim bàmmeelam rek deewuloo nga dikka boosee ñu ne doo doomi yoon moo tax kon bañ koo tiim a gin bon léegi man yàlla dafa def xam nga loo gis toppandoo léeg-léeg mu baax léeg-léeg mu bon suma moro bi di commencé tukki fekk man bàyyi naa alxuraan euh, pour pour mu gën a leer ban dëkk nga ganee àdduna fi ñuy wax jal jal jal pesteur d'accord léegi euh, jal ci ban euh, mu ngi dokk xëy maatam waaye ci loolu la gën a jege d'accord léegi nag bi nga xam ne Eh, su morom yi tukki nañu di ñëw Dakar di ñibbi eh, ma gis ku ci yoru deru montor xam naa da koo for rek loolu jaaxal ñu sum papa yàlla defoon na mu am ay nag ak ay xar ku bugg jënd fas say papa laa lay jox man sum papa nee nagam du jar fas parce que papam dafa teel a dee ña ñaari rekk papam ñoo ko yar surtout maamam mu ne nagam du jar fas xaram du jar mm. bon ma tukki bi ma ñëwee fii awma dara benn jigéen moo ma jël boori pompier fu ñu def pompe bi léegi ba pompier bi nekku fa ban at la loolu boobu cinquante la. 1950 nga ñëw Dakar. boobu yaa ngi jëkk a ñëw. yaa ngi am ñan at. Euh, boobu taa presque maa ngi am 15 ans. 14 ans 15 ans. Mm-hmm. benn jigéen bu dëkk Wuro bi muy def passion. man comme que dafa bari tiitar te boobu man damaa defe ne juddoowul sax <laughs> xam nga léeg-léeg nit da lay xeb la. waaw fekk tegoo ko nit. <laughs> bon ma nekk foofu liggéey juróomi dërëm par jour la may fay xam nga jëkkoy taalibe rek may raxas si ndam buy dem marché ma ànd ak moom yoral ko lekkatam weeru dee mu war maa fay sept cent cinquante mu 750 francs waaw payum 750. 750 francs. ah boobu temps dara la woon. déedéet du affaire dara. Mm. bu taalibe bi nga jël rek muy di lay xasal say ndab mm-hmm. Mm-hmm. yooyu. mu saaga ma fay mu yóbbu ma police boobu police bi mu ngi nekk ci benn bâtiment bu nekk lale boobu kenn tabaxul pompier. Mm-hmm. ñu gërëm. ba yàgg mu dem ñu laaj ma ma wax ñu dem jëli ko ñu ne fay ko dem koy fay mu fay ma. ñu jaarale ma arsenal boobu temps gaar bi dafa xumb nga dem bee gaari baala jeeg feegar ba dem bee gambita mooy am Lamine Gueye léegi mu wàcc ñëwaat bee xool ma mu xool ko ah. ma ñibbi lu tax nga demoon ba foofu ndax du li ngeen jote woon la wala waaw pour mu xam ne police bàyyi na ma ah. <laughs> ma dem bi ma demee ma xool ko mu xool ma ñibbi su mu benn jaay daaw la gaañu ma dina guraas ci làkk bi ma nattali ko mu ne nañ dem ma saaga ko <laughs> moom day xeex ak sa ngelaw su ma najaay boobu <laughs> ceeba xaalit it ba tey jub mu xaalit moo jur yaayam mm. ma bëgg a bañ mu ma ma ànd ak moom mu saaga ndaw si ba xolam sedd ñu ñibbi <laughs> ma dem may wax ak nit yi rek ñu ne ko voilà ñi am fii yëpp seen seen alal baay rek lañuy ñuy beewee waaye bu ñu demee ci àll bi danañ xam ne bokkul de mm. Maodo daal di wàcc yoruma dërëm mu jubal xaay kayit bee xaay suma tànk laa ko doxee. kayit bee xaay suma tànk laa ko doxee. kay mooy fan. xaay Mali ci Mali. ah d'accord xaay. xaay laa wax. ma dem foofu. boobu liñ la wax ci dëkk bi moo la métti. waaw ñu ne ma ñii yëpp seen alal bàyyi rek la ñuy beewee. parce que ñun tool yi ñu am. balaa ñu baal baari dex bi moo gën wurus moo gën jama. tool mm-hmm. yi ñu am mm-hmm. ñi ko am fuuta yëpp bokkuñu ak ni ngiy dund mën nga fa bay lu ne moom lu ne lu ne nga cee bay den nangu waaye nag boobu baare defuñu baaraas jama mm-hmm. baaraas jama xamuñu lu tax tubaab yi def ko xamuñu ko bon toor yooyu boo bayee rek am dugub bi nit yi di xëb bee di lekk suuf mm. ay deux mille ay quarante trois quarante de quarante de quarante trois la liibar dërëm am moom lay tugaloo di wax mbuubu tugul la mille am na ñi nga xam ne bu ñu yeewoo dañuy dem topp xorondom yi di leen gas ñu dajale ay pepp sanqal ak yooyu di ko lekk am ñi nga xam ne dañuy mukk suuf naan ndox ndax ñu bañ a dee est-ce que tubaab yi dañuy ñëw di bojj suñu dugub bi di yóbbu France 44 ci la dugub bari ñu ne ko gawri kéew ji ci tukulóor tool yu ñu am ñu ko am ci dex bi aali wuuri am na ku ñu wax kuddeel am na ku ñu wax xorndolde am na ku ñu wax waawnde falo galabu am na bee boo demee Mali fu ñu boori bi ñu diggante euh, kii Daramani ak maxan na maxa dugub am na tool yooyu tool yooyu day tiim dex bi mhm. ndox mi nga xam ne da day taw saaxal mhm. boori fi ñu wax melga mu ngi wàcc fu ñu wax laani mu ngi tudd kaari kooro suuf bu indi bu tegoo ci tool yi loolu la tuulóor yi di wax euh, ndàncaandi ndàncaandi li may wax ci tuulóor xam nañ lu mu doon mhm. taw bi nga xam ne day taw gine fu ñu wax kaari kooro wàcc ak boori kula wàcca ci xeer yi ñëw suuf bu indaale day tegu ci tool yi moom lañuy ñuy loo ci béy mu nangu da nga ci béy fukki xeetu gàncax yépp mu baax dugub mboq ak mboq naajoog pataas ak tamaate ak ak xaal loo ci ji lépp day jaxasoo hmm, macha hmm. bi ñu baaree jamaan ak bee léegi loolu amatul hmm. euh, yàlla def nag ma dem Mali nekk fa six ans dem naa ba Tombouctou dem Nioro jóge faa dem Kiifa jóge faa dem Melga pour déeg yi nekk ay kankoos delluwaat xaay Mali six ans yi loo fa doon def euh, lu bari def naa ko su ma ñëwee ci borom jur sàmm mun naa ko def naa ko su ma ñëwee ci daara xeetu cubbalo la su ma nee cubbalo laa rek ma dugg jaltaabe la ñu may wax boo demoon léegi dembankaani beex pomu xaayi boo nee jaltaabe ñenn ñi sax de bu ma nee man maay jaltaabe sax bi saraxu lay ñëw ci man dañoo defee ne du dëgg su ma leen waxee seen dëkk nu mu mel ak nu ma dëkkee ñu xalaat ne parce ni ma déggee saraxul dégg ni ma déggee ma ni ma déggee ma ko noonu olof ba paree nga nekk tout tànk nekkoon ndaw. def mhm. dëkk yooyu yëpp. nga nekk ndaw. Mhm. su ma ñëwee fu ma ñëw rek lu ma faa fekk nekk loolu. bu mhm. fekkee ñuy béy ma ànd ñoom di béy musuma gis nag fu ñu gerte su dul fu wax ambidee du gidi gerte moom musuma gis fu ñu man sax suma xeet benn nit laa musa gis mu mu béyi gerte. xamuñu béy gerte ñun. gerte gaal day romb rek am gerte bu sànnee ñu dem feey jël ko. xar ko yëy loolu rek lañ ci xam. su ma njaati gi jigéen su ma njaati bu góor bu béy xamul béy. Hmm. mu am toolam. ma ne ko mun naa béy mun naa la dimbali mu ne eh yow da nga mun a béy xamul ñun ci béy lañ dund. Hmm. waaye bi ma xëyee ak ma tàgg ba su ma njaati gi mer. <laughs> ñun béy rek lañu xam. Hmm. am na taasum maam am na lu ëpp ñaari téere bi téeméeri mu ngi tudde malal par moom ak ki jur sum papa ñoo bokk bàyyi moo dalal sum papa bu mu wàcce ñetti yoon moom ma dalal it wàccu ci lu xam nag ci doomam daa wàcce mm-hmm. ak ki jur sum papa ñoo bokk benn bàyyi ki jur sum papa muy taaw kër kii kooku nag dafa gaaw a dee ci daara malal boobu nga jàngee laa jàngee mm-hmm. ñaar fukki jéeg ak laal moom ñun mm-hmm. door a dem ci doomam doomam nag ci woon ci alquran ci Fuuta yëpp ñi kër yi daara yi jàng yi soo nee ceeri juddi jar rek ñu xoolaat la xam nga rajo yi bari na waaye boo tuddee rajo benn baas man bi ma koy gaj a xam bu njëkk balaa mu ñëw suma kër boo def rajo bi machine fono la yoroo man di tourné ay boori soixante ak yooyu xam nga man Grand Dakar le cinq juillet cinquante-neuf laa fee ñëw boori yoor yoor daara ji noonu lañ ko xamee woon ma ne daara ji noonu fu ñu ko tuddoon rek dañ koy xam. waaw mhm. léegi ceeru julde jal jooju au lieu ñu di koy wax julde malal wala julde jéew ñu ne ko julde ji julde jal comme que jal dëkk bi mu tudd jal yàlla def it dëkk yu nekk daane maayo bi danga na bee njurul bëri na ñi nga xam ne jàng nañ ci ñun boo dem rek gis foofu kaw xam ne nee jàng naa ci daara bi mhm. ñi mokkal alxuraan di wut isaas dañuy ñëw foofu Eh, léegi nag bi nga xam ne ñibbi sum papa am ma ñëw Bakel ci suma tànk di waxtaan foofu maa ngi nekkoon kër ku ñu wax Ousmane Sogore eh, maanaam bi nga jógee Mali eh, six ans yi da nga ñëwaat Sénégal dama ñëwaat Bakel Bakel waaw dafa am soxla bi ma dafaa doon dox hmm. am ku ma gis di wax ak man moo ma gën a muus nag léegi boobu si ñaata at nga toll ba tey boobu am naa vingt ans vingt ans hmm. cinquante cinquante quatre hmm. fekk ñu am foofu sànc ñuy tabax dispensaire Bakel Bakel boobu at lañ ko def cercle du woon serkal cercle bi maa ngi mu ngi woon Tamba maa ngi fàttaliku séen naa tubaab bi àgguma ci moom waaye mu ngi def kaala saraxule yi bu leen wolof yi jëlee ñu wax ak ñoom boo fekkee dikku ñi dikk bakkel dañ dégg olof hmm. danañ dégg saraxule danañ dégg bambara danañ dégg naar ñi dikk ci biir Bakel ak xaay yëpp ñi ci gën a bay làkk yu bari danañ ko dégg mm, <laughs> waaye nag ñi nga xam ne dëkkuñu Bakel mm. du ñu dégg lu dul seen làkk ñu ma jisee nag man làkk yooyu ma ne ni ko bàkkeel Bakel déggee laa ko déggee ñu ne ma waaw xanaa bëgguloo liggéey am na ci kenn sax gool tàppeli dëkk mu ngi tudde jaajo mu moo doon suñu chef maçon ma ne xanaa bëgguloo liggéey tubaab ma ne ko aha kay na ñu ne ñu ma doon wooyee ki dégg lépp kaay mm. <laughs> ki dégg lépp kaay man ki dégg lépp nag man yàlla rek a dégg lépp xam lépp dégg lépp mm. yàlla rek la mm-hmm. Mm-hmm. léegi euh, Thierno Bokar mm-hmm. euh, bu ñu tënkee rek ci genn wàll euh, jóge nga ndakaaru ci mel menn at moo amoon def fi liggéey boo xamante ni dafa am ku la jëloon nga ko doon raxasal nga jóge fi dem Mali dugg nga ci wàllum sàmm ñëw bàkkeelu dem laalu maçon su ma juumlee ñetti ponk laal nga ko Euh, di napp ci gudd fanaan gudd fanaan napp. Mhm. béykat set yeewoo liggéey liggéey tubaab. Hmm, macha mhm. bu ma wàccee bu ngoonee fa fanaan nekk. liggéey tubaab mooy la mooy maçon. maçon bar rek laa war a nekk. mu mhm. bar rek. nekkaat mool tamit boole ci ndax. napp guddee ma dem nappi. jox ñu jaayal ma. bu bëccëgee ma yendoo liggéey. boobu ñu ngi tabax dispensaire Bakel bi mu ngi Modin Kaani. Modin Kaani mooy boori kër sëriñ su papa bi ñu ko nattalee mu ñu ne mu ngi Bakel kër ku ñu wax Ousmane Sogore dama wàcc fi ma doon liggéey liggéey tubaab fas yéene nappe mu ñëw fekk mu toog mu jël si ma jëluma suma bagage ànd ak moom dem béy béy mbéy mi jeex delluwaat jël suma bagaas ñun boobu taa mbéy mi boolewuñu ko ak dara mm. xam nga nit mu ngeen dandani tool fekk su ngeen béyee rek du ngeen nuru dugub mhm. nu ñu koy béyee ñun booy jullee salaatu nit yi boobu boowutaa man duma julli bu nit yi dem salaatu man maa ngi ci tool bi foofu la ñuy julli timis yow nga toog ba onze heures nga ñëw bu trois heures nga wàcc xam nga bokkuñu mhm. bon léegi ma ñëwaat dakaar waaw xam naa ñu pour gagner temps Mansour nga ñëw ak moom plus ci li ñu gën a gën a gën a yitteel parce que bi nga ñëwaatee Dakar ci nga commencé dugg ci jaay moomu le mooy aa ma ñëwaatee Dakar mhm. ma liggéey tropical mhm. mooy tribunal bi nekk Kan Manil liggéey ci neuf mois bi ma ci liggéey de moom béy jot ma bàyyi dem béy ma ñëw aw ma place ma maa bàyyi sum bopp ma dem bi ma ñëwee amatuma palaas ma matul palaas nit dafa war a waa wut lu ko dindal dundal mm-hmm. Mm-hmm. ma leb suma ñaari morom kenn ki ñaari téeméer kenn ki téeméer mu ñett jaay sijaade lu war a mot fukki fan wala juróom fan aw dara li may añee sax du ma ko am ma gis portefeuille ma jënd ko boobu jour ma am trois cent cinquante francs mel na ne damaa jóge ci kaw asamaan ñëw. Ah, ndax bëri. nga ah. boobu taa juróomi dërëm mun nga si an. macha allah. bon ma continuer nag. ba yàgg ñu maye taabal Sandaga bi février cinquante non déedéet cinquante cinquante huit. saxurullah février 58, huit. man ñaanuma taabal. comme que ñun yàlla defoon na suñu mbokk yi am nañu aslef euh, tukki wuñu woon it wuruwul alal déedéet léeg-léeg nga tukki lan ci kàttanu yàlla rek mm-hmm. bon man wutuma taabal mu ne kaa ñu bokk ñu bokk ci biir cinquante huit su ñu amee fukki junni rek mën nañu seddu ñu seddoo man ma denc ba mu am trois cent cinquante mille francs ma ñibbi Fuuta maye ko lépp ci benn ngoon ñëw toog. 350 hmm. 000 maam. nga maye lépp waaye xam nga nee la boobu du wut xaalis. Ah. parce que xam nga boobu nag du am xaalis waaye du ñu am ci nag dafa bari. Hmm. am xar yu bari. Hmm. et comprendre nga loolu moo tax du ñu compter lii alal la. dara mu ne ma waaw. su morom boobu le mu ne ma waaw yow. dégg naa sa xaalis yëpp dem koo maye ci benn woon ma ne ko waaw man lan laa war a dooyee xaalis. Mm-hmm. seetal rek yow. waaw lan laa war a dooyee xaalis. Mm-hmm. mu ne ma ah dooyoo xaalis nag ma ne ko dooyoo ma xaalis dara. mu mm-hmm. ne kon nag nañ seddoo tabal ma ne ko bàyyee naa la ko. may ko. ma ne ko bàyyee naa la ko. man. boo léegi léegi Thierno Thierno pour que waxtu wi ñu li mu waxtu wi ñu yor dañu ko xaaj dañ koy dañuy tënk lool. Mhm. léegi pour ñu mën a dem ñu avancé un peu wax ji. dem nga léegi dem nga Fuuta am na loo jot a am nga dem maye ko ñëwaat dugg ci wàllum li nga xamante ni mooy njaay. Mhm. bi ngay dugg ci njaay ak jënd. Euh, bu ñu mënee xam ci lan nga doore lan nga amoon ci jamono jooju. maanaam ñu ñu tëb voilà ñu tëb bi maanaam tëb bi voilà. njaay bi loolu laay ñëw xam nga. Mhm. nit kii ci boppam nee naa la soo ko jàngalee saar bu mu muuñ day gàpp man bi ngaa xam ne neen nañu bokk ma commencé jaay suyen ma am na benn lawbe ñooñu bu ñu toogee fale dañuy wax ne bul toog ak ñi yaa leen ëpp doole hmm. toog naa ñi ngaa xam ne kooku ñooñu suñu papa seen tuur lañ koy wax rakkam la waaye ñeeñe bi bëgg maa tàggat ma ne ko ñii ñoo ma jur su ma leen dinee fan laa jëm hmm. ñuy seetu Farba Faworo ni ma nekkee seetu Faworo seetu Ceerno Xaalid ni ma nekkee seetu Ceerno Xaalid su ma leen jëlee fan laay dem. léegi nag bi ma fekkee may jaay suy ma mu ne ma gis naa taabal gara Dakar ma ne ko ah mu ne ko ñu wax Malick Sam mu dikke kiloom moo ko moom ñu ñëw xool taabal bi ñu réglé ko ñetti junni yi ma yoroon jeexul. xam nga comptable bi amul marchandise. bon ma jaay suma ñaari mbubb comme que nag li ñuy jaay ci bitik ak li doon jaay fële ñun li ñuy jaay fële lu mu tuuti tuuti benn pièce bu nekk dana jaar fukki dërëm léegi gis naa double vinaigre euh, fifteen water seven dërëm xorom euh, <laughs> ñaar dërëm fari jaax loolu jaaxal ma waaye nag jaay naa suma ñaari mbubb ñeenti mbubb la am jaay naa ñaar boole ko suma ñetti junni def ko ma commencé rek mm-hmm. diwlin damay dem jënd ñaar fukki litre ak ñaar yéen ko indi am na ñoo xam ne bëgguma tudd seen xeet tuur ñu ngi dund xam nañu li may wax mm-hmm. su ma ñëwee jaay litre bi fukki dërëm ak juróom-ñett ak duubal lay jar boo jaayee détail walaat bu nekk fifteen ngay am muy quatre-vingt-seize mooy yow léegi boo jindee mm-hmm. bi boo ko jaayaatee francs ngay am mm-hmm. kilo ceeb yaa ko jinde juróomi dërëm ak ñetti fifteen ak tànk nga jaay ko juróom benn mm-hmm. potu goloria tey jinde naa ko téeméer boobu taa ñetti dërëm lay jar Mm-hmm. bu ne ruus ñetti dërëm mm-hmm. ah qu'importe ma nekk ci léeg-léeg ma xëy ñu ngi defar ci kaaba liberté en liberté yi di ko liggéey ay minébar ma rek ngi journal

waaw pour gagner temps nga ñëwal ñu rek ci waaw xam nga ceeb bi ceeb bi dama lay leen di wax bi nga xam ne moo ko indi waaw am na léegi nag boobu kilo dugub juróomi dërëm kilo ceeb juróom benn ñu commencé may jaay ci bitig bi bee yàgg comme que ñun dañoo xam ne boo amee jur da ngay def zakat boo amee xaalis da ngay def zakat ma bëgg a def zakat fekk fi ma nekkoon ñuy gas conduire station xam nga station yi ñuy wax léegi pour lu yóbbu ndox kanaar yi. waaw ñu bugg maa toxal mhm. ñu ne ko ah ngi door a ñëw benn weer la am fii ñu ne ma de waxal na nga tudd dañu may la kër ma ne ko man bëgguma kër <laughs> man lu ma am fuusa euh, yaakaaru gu ma denn wala am fii man bëgguma kër ñu ne ah boo bëggul kër yi da tuxu de ñu toxal ma am benn kilifa bu nekkoon saru diise li kër bi ma nekkoon ñu ne ah kër galee de naar moo ko moom naar bi nekku fi demal wax ma dem ci borom mu ngi dëkk boori marché Gara Dakar mm. mu luye ma quatre mille xam nga ko luye woon mille franc bu luyee quatre mille seer na ci moom mm-hmm. ma defee inventaire di seet li ma am huit mille franc la am yàlla mi nga xam ne mooy xelal nit nga nite nite moo gën a jafe boo gisee musiba am mooy nitewul mm-hmm. xam nga mu nit nitewul mënul mm-hmm. def lu sotti léegi nag moo waxaal ak moom quatre mille xam nga ko jógee ci mille francs dem ci quatre mille seer na mm-hmm. aw ma jabar aw doom kii mu ngi may wax léegi su may sit su ma kooku seen yaay mu ngi juddu soixante cinq bon mujj su ma mayee nit paasu ci ñaar dërëm la bu dee paasu sàngara ñetti dërëm la ma bind su mayee nit limonaat bu ndaw tak euh, quinze francs lay jar ma bind su mayee euh, bu dee groupe limonade buy jar juróom benn ma bind ma seet weer bi li ma cee maye mën na cent et quelques mille boobu objet yi ñu ngi am 60 mille ma ah kay man kay ndekete maa yàq suma xaalis xam nga kooku kenn xelalu ma ko dul yàlla. Ah. nga xam ne mooy xelal ñëpp ñu am xel. bon. Mhm. may liggéey jaay ma ceeb rek. Mhm. di jaay ñebbe boobu ñebbe kilo ñaar dërëm. soble Sénégal bi mu commencé kilo bi ñaar dërëm. bon bee yàgg ba. soble Sénégal ci ay takk yan année la commencé. peuple Sénégal mel noonu presque ay soixante deux soixante trois. d'accord mhm. ceeb bii di amoon na sayet. Mhm. boobu taa euh, usines yi bariwul ni sayet amoon na mu am léeg man ceeb bi ñu ma jëkk a jàppee contrôle économique ceebu sayet la ki ko ki ma jaaye nu fàtte ma tuuram. Mhm. boobu kilo mu ngi jar juróom-ñetti dërëm. léegi nag bi nga xam ne ñu ngi jaay xam nga bu ñu gisee ngay kii rek léegi yàlla yëkkit na la tuuti rek ñu commencé la boole san bopp nga jéem a nekk nit waaye même boo nitewul woon ñu jéem laa nital da nga gis léegi ku ñëw tooñ la boo ko dumee gaañ ko ñu ne kii dof la mm-hmm. bu la gaañee ñu ne ah kii booye ba nga bàyyi ko rek dof la mm-hmm. waaye nag dof kay waru ñu ko bàyyi muy duuraate mm-hmm. bon ma nekk foofu di jaay ñu def regroupement commerce bi boori 71 ñu nekk fii ci cinéma bi nekk Liberté am ku kontoor suñu patron ki jiite woon affaire bi mu daaneel ko ñu def inoses confeses man ma bokk inoses inoses ëpp doole gouvernement bi ànd ak confeses waaye sottiwul ba yàgg ñu ne boole leen ñun nag xamuñu woon boole leen lan la boole leen ndax ngeen mun a dànk suma leen dóoree bomb ngeen dee lépp jeex ñu boole ko ñu def geste ñu jiital benn nit ku am fu mu jàpp xam li muy def ñu yéew mu dem Amérique ñëw rek man mu xaw ma Amérique ci kaw asamaan la nekk xaw ma ci kaw musuma faa dem bi man xaw fi mu toll nii musuma faa <laughs> sax terminal rek am faa yóbbu woon <laughs> man li may liggéey Grand Dakar laa ko liggéey. allah. waaw mais loolu mën na ci am na ci nit ñi mën nañ ci def benn jàngat que ni nit mën ñoo tekki. ci des bi ndaw ñi nga xamante ni tey ci jamono dañuy jël gaal yi yaakaar ni que ni seen. ëllëg ci loolu kenn ku nekk xam nga doo dem fu la yàlla yóbbu ngay dem. Mhm. léegi nag bi nga xam ne nañu des ñu yéewu rek signé ñoom ñëpp génn nañ ci waaj man signé wu ma. Mhm. police ñëw jël ma. ñu ne ma waaw ñëpp signé nañu génne nañu ci présidence yow si yow ma ne ko présidence xamuma man mbubb laay sol mu ne ma làkk tubaab xam nga lu may Sénégal sensé ci kawdir hmm. dégg nga lu kawdir yu tudd kawdir kawdir bay jagal hmm. xam nga bay jagal du du tubaab hmm. bi ñu koy defar ak quarante neuf dem quarante neuf cinquante dañu seet ñu ah kii de du dara waaye tubaab bi rëccu nañu ko ba Amérique moom la ñuy jaay. Mm-hmm. li tax ñu mën a tabax it muul dafa diis tubaab yi bëgg ñu yëkk dañu bëgg a nekk seef. Mm-hmm. bëgg nañu nit ku ñuul yëkkital leen seen brique. Mm-hmm. moo tax ñu mën a tabax. kawdir yi bu ñu leen sàggane ñu ngi amoon kawdir yu ñu wax font boobu ndaal yi ngay gis. moom la ñuy tudd moom la ñuy toggee xam nga nu mu tudd. ci tukulóor. fayande. fayande fayande léeg-léeg da gis ku jéqi. añam loolu ñu jeqe mu butta ndaal bi mu yàqu tuuru ci kaw safar bi kooku mooy fayande bon léegi nag bi nga xam ne commencé nañ bay dagal tubaab yi ñàkkal ko fayde ñu réccu nag waaye léegi xam nga mënu suñu wax kenn di ko tëgg léegi nga bañoon a signé euh, bi moo yóbbee police ma ne ko man xaw ma patron boobu parce kooku defe ne sax man duma nit man it xooluma ko ñu seet be yàgg ñu bàyyi ma. d' léegi léegi pour gagner temps ndax hmm. euh, mbokk yi xam naa bëgg nañoo dugg. am nañu bëgg a <laughs> euh, mais kañ nga tàmbalee indi ceeb senegal question boobu direct dañuy dugg ci problème bi kañ la tàmbali. Hmm. xam nga ceeb jékki-jékki mu rek indi ko Abdou Diouf moo wax ci rajo bi mu remplacé Senghor Senghor daf fi nekkoo rek def ay coup d'état <laughs> fu mu nekk dañuy defee sengoor yonent woon bu wàcc la hmm. waaye moo coup d'état Lamine Gueye hmm. mu coup d'état fédération Mali hmm. boobu maa ngi fi ma nekk de mu coup d'état coup ma ñoom Mamadou Dia juróom ministre ci benn biis maa ngi fi ma ma nekkoon yàlla def ma jënd benn kër quatre cent mille koñ boobu yét suma kër euh, ma jënd ko usine Bentel quatre cent mille jaaxaloon na ñëpp ku jaar potu dërëm ak fiftin diwlin boobu dërëm ak fiftin mun naam potu diwlin bi ñu wax euh, potu dërëm ak fiftin sax la tudd mm-hmm. am genn wàlla walaat kooku butéel la am walaat kooku butéel la am genn wàll litre kooku pot yi ñuy defar am litre diwlin léegi nag ba nga xam ne Abdou Diouf wax na ci rajo ku mun a indi dugub na indi dugub man tuuti laa jàng ci arab di xelmati ma dem ambassadeur Égypte ngir li ma gé doon gëstu ci seen euh, aduna ñu ko doon doxalee ak ki nga xam ne moo jëkk a maye boppam comme jaam ak bi mu nekkee Yuusuf bi ñu ko sànnee ci teen bi ñu for ko bi ñu ko jaay euh, kii saam après bi ñu jaay ko Égypte mm-hmm. liir loolu bi ma demee ci ambassade bi ñu boole ma ak seen société affaire commerciale. kon dugub nga njëkk indi balaa ceeb. waaw léegi bi ñu ma joxee bato dugub boobu. Mhm. kenn joxuma autorisation sax dañuy wax ne rek ab Diouf nee na ku mun a indi dugub ma indi. Mhm. bi ma demee foofu ñu wax ma naan laa def ñu boole ma kooku ma dem ma commandé benn bato onze mille ton bato bi le vingt septembre bii ñu nekk la ñëw Dakar. waaw fan nga amee woon xaalis pour jëlee euh, onze mille tonnes. waaw man nee naa la boobu jënd naa kër quatre cent mille. Mm. waaw kon ma dencoon nga lu bëri. waaw xaaral onze mille tonnes kat ma jëndee kër quatre cent mille. <laughs> Uh-huh. kër gi li ma calculé boobu cent vingt laay joxe dépense am naa jabar ba pare jënd naa fitel su ma soxla la woon. Mm. jënd naa fas. Mm. léegi léegi am naa tuuti. mu jëndee kër quatre cent mille man li ma calculé kër gi day am trente mille par mois. Ah. man cent vingt cinq laay joxe dépasse. Ah. kon xay baax na. macha <laughs> nga indi bato bi. waaw xaaral gum. Mhm. bi may jëndee kër gi ma yeewu jaay kër gi un million cent cinquante xam nga trois fois dama jëndoon. Mhm. xam naa ki ma jaay xam naa fi ma dëkk. Mhm. xam naa nu mu tudd xam nu mu sant. keneen jaay ma beneen kër trois cent mille ma defar jaay. mujj nag di jënd kër yi defar di jaayaat. waaw léegi nag bi Abdou Diouf waxee loolu ma indi bateau dugub bu xonq mu jóge Argentine dugub bi mu ngi ñëw septembre weer bi le 29 1985 bon jaaxal ñépp na parce que boobu Océan nekk na fi mosul cinq ans euh, mu daanu Oncar nekk fi yàgg na fi moom nekk na fi ay vingt cinq ans mu daanu bon sonaar nekk fi yàggul mu daanu kees précaution la doon def waaye du woon société bu indi ceeb ñu jox ko kees waaye nag fekk remplacé na ñetti société fii bi ma mhm. indee nag mu jaaxal ñëpp ñu ñëw suma kër di commencé di ma laaj mhm. ba yàgg éleveurs yi ñoom Pap Ngom dañu am société mooy mhm. Sodima léegi ak ñoom Ibrahima baax ñoom Ibrahima Samb ñooñu alhamdulilah ñu ngi dund ñëw sama kër ñu ne ma indil mboq mboq moo baax ma commencé di indi ay bato mboq indi naa lu war a ëpp fukki bato mboq indi mooy ceeb. boobu kees muy indi ceeb nanguwul ko debi ceeb am bato bi ñu indi Congo mu am problème benn nit bu nekk madi mu tudd ma Sédar. mu ne man de am nañu benn bateau ceeb bi ñu jaaxal mu ngi Congo man xam fu Congo nekk mosuma faa dem mosuma dem sax même Abidjan hmm? ñu waxaale ceeb bi jubóo bon ma indi ceeb bi fii. si ngay doog a njëkk indi. waaw bi ma indee ceeb bi fii jinde ci banque bi yaawu boobu taa fekk man bu njëkk bi ma ni tase xam nga defar xaalisam su morom yi ma bokkaloon di liggéey liggéey tubaab.

mu jënd ci deux mille am beneen malien bu ñu mu jënd ci deux mille mu xam nga bateau bi jeex na bon léegi nag bi geste demee ba am problème parce que ko a commencé bi ko a commencé ñu ne ah léegi de dañu bëgg gouvernement bi ba bàyyi ñu ak ceeb d'accord euh, danañ ñëwaat ci loolu pour fàttali mbokk yi nga xam ne ñooy seetaan tey ñu ngi dalal sunu papa. Mm-hmm. Euh, Bocar Samba Dièye macha allah mu nekk ku ñu ràññee ci réew mi. boo gisee nag ñu jël temps bi yépp li muy wax dafa am solo. Mm-hmm. ndax dafa am ndaw euh, ñu mel ni man. Mm-hmm. di ko déglu te daf leen di jox leçon yu bare bare tey ku toog bàyyi xel fa mu déparé fii ci pompier. ci ñëw di liggéey ci jigéen di ko raxasal ay ndab. jigéen ji yor restaurant bi mhm. ah, mu ko cay am lu fay mhm. wala jëkkër ji moom restaurant bi mu jógee foofu noonu la dem Mali six ans xeebul benn liggéey du papaam amoon papaam amoon mu mënoon a wéeru ci am amu papaam ah. mhm. loolu noonu yëpp mu jaar ci ci parcours dellusiwaat Sénégal xolal xolal lu doy waar koo xam ne yaa ngi xëy di maçon ba ngoon jot guddi nga dem nappi jaay jaay jaay jën. <laughs> ñëw jël si waat ah? kon kii daal lu mu daan nelaw. Mhm. néew na waaw loolu loolu loolu teg suñu jamono ji nga xam ne dañuy nelaw ba yendoor lu ñuy mhm. liggéey dafa néew. doy na waa ko dégloo moo xam ne ne ku réaliste la parcours bu riis la bu am solo léegi nag papa dañu dañu am temps bu xat boo xam ne. Mhm. parce que ay 40 minutes rek ka ñu dese. te Mansour am na ñu bëgg a dugg ñu bare ngi laajte dañu bëgg carrément na ñu dugg ci coow li. tool yi nga xam ne moom moo waral ah. non non parcours bi ah. fi toll nii liñ ci am am am na solo mm-hmm. léegi euh, yooyu yëpp buñ ko bëggee kii xam naa ñaari émission ba ñett lay doon <laughs> mais léegi Mansour dañu bëgg rek nga dugg dem direct parce que yaakaar naa problème kañ la tàmbali mm-hmm. problème bi yaakaar naa ni su ma juumulee ci atum 2008 euh, la tàmbali mm-hmm. euh, 2008 tombeek mu indi bateau boo xamante nii am na limu tonage boo xam ne ñoom ñoo ci nekkoon bu fekkee eh, eh, Bokar mën na a dellusiwaat ci atum 2008 boobule xew-xew boobu nga xamante ni tey mën nañoo jàpp que ni jafe-jafe ju Bokar Samba Dieye di dund ci Aboño li foofu la jóge mhm. pour ñu gagné xam nga waaw d' accord gagné temps baax na xam nga man. Mhm. am na loo xam ne bëgguma ko dox mhm. parce que man balaa ñu libéré ina quoi. ñu ngi dund. bi ma bi amee coow ñëw seet suma suma kër ñi ma seetoon ñu ngi dund déwuñ. ñu ne waa UNACOIS ñoo la soxla lay Wade la Abdou Diouf may ceeb Abdoulaye Wade daa ngi dund kaay nga wax ñu nan la Abdoulaye Wade def ba am xaalis ci loolu ma ne du ma ñëw dem kër Abdoulaye Wade opposition la boobu waa premier ministre xam nañu ma ñoom secrétaire général gouvernement xam nañu ma Abdou Diouf ci boppam xamuma physique ni waaye xam na ma ci tuub mënumaa dem kër Ablaye Wade. Mm. mun naa dem nag bureau moomul biro bi affectation la bi set ñuy dem bureau Ablaye Wade ñu toog ñu woo Famara Sagna fekk mooy ministère di finance mu ne nañ ñëw ñu dem biram ñu toog mu wax ko nan lay def bateau boobu Mimara la ko jaay li ko jaay xam naa ko léegi nag ina quoi ñu jëkki-jëkki falma personnel conseil administration Serigne Dia Ndongo ñu def ko directeur général ñu def société bi ñu wax Unacois euh, commerce waaye ñu def ko SA ma jiite ko bu Abdou Diouf may commerçant yépp ku nekk bateau ceeb may Unacois ceeb benn bateau Abdul Mbaye ngi dund moko fay millions je ne munu quoi man ci comme que legui commencé na di indi ma jël millions jox Serigne Diandong mu versé ko ci compte inaa quoi Mbaye jox ma 600 millions muy un milliard ñu fay bateau bi ñu laaj ma ci ne ma ci da bal amul société bu ma a di wut ci

ñëw wooma ku gëm liggéeyam lan la moom moom notaire la tuuram la ñu fi bind mu ngi nii ci kayit bi ci kayit bii ñu mhm. ne Moustapha Ndiaye bi moom fuggee ànd ak suma gardien mu ne ma primature ñoo la soxla mhm. ma ne ko ah. loolu na année la mooy 2008 bi euh, waaw 2008 bi waaw ma ne ko waaw lu xew mu ne ma ñoo wax ne suma xarit nga ma ne ko ah guddi ñun de suñu maam yi temps bi ñuy nekk Farba Dial boobu taa tubaab amul ah ku ñu yee guddi du baax de mu ne waaw xam nañ suma xarit nga ma moom balaa ma dem ci bunt bi ma wax ma xalaat comme ko waxoon naa kii bi ma dellu ma ne ko am na lu ma fàtte ma wax suma doom ma xamal ko Moustapha Ndiaye laay àndal onze heures et demie la man musuma génn guddi mm-hmm. mu ne ah ma dem bi ma demee ñu fekk fa aaj sumaar ñuy tey mu ne ma waaw ñëw nga mu ne waaw mu ne waxal loo bëgg ma ne ko man yow ma sama bopp yéena ma woo mu ne waaw wax Abdoulaye Wade dama wax waxal li nga bëgg ma ne ko bëgguma dara man euh, euh, liggéey wut lu dunde waaye man du caagin ngeen may ma dara mu ne ma ah Abdoulaye Wade de moo ñu yónni. Mm-hmm. ma ne ko man bëgguma dara. mu xam nga loolu day jaaxal nit yi. Mm-hmm. bëgguma dara malheureusement tey neex na. dinaa mm-hmm. ko léegi bi mu njëkkee fay bateau bi am nañ ci luñ ci am ñu ne ma waxal li nga bëgg ma ne bëgguma ci dara xam nga loolu neex naa wax. mus naa ci tuuti ak laaluma dara moo gën. ñun du ñu ñeeñu. xam nañu lu ñu nekkoon balaa tubaab yi ñëw mu dem dugg ci ruq ñëwaat kooku xaw lu mu wax foofu mu ñëwaat mu ne Ablaye nee na bëggoo dara. ma ne moom moom Agibou waaw mhm. mu ngi mhm. ne ma léegi bëggoo dara ma ne ko déedéet mu ne ñun nag problème yi ñu am loo ci xam ma ne ko ban problème mu ne bateau yi fayatuñu douane benn benn ceeb fayatuñu douane deuxièmement bateau bu nekk il faut ñu ñakk un milliard cinq cent deux milliards bokkul ak lu mu fay duwaan loolu du baax. ban pexe ma ne ko boole leen ma ak ministère de commerce Decroix mu ngi dund. ak Amadou Niang mooy ministère de commerce man kama lañ jëkk a nommé fekk na may jaay fu may jaay ci tuba nit ku ñuul Babacar Kama lañ jëkk a nommé waaye man ni ma mel ci ceeb noonu laa meloon ci diwlin. Mm. directeur bi ñu jëkk a nommé mu mujjoon na léeg-léeg day wax ne soxla naa léegi-léeg bayil ma ñëw ma ne ko déedéet man musuma woon nit gis nit ku jub lu moom. waaye ndekete nit ñi boo boo moytuwul ñoo lay dungaloon. Mm-hmm. nit ku juboon la. Mm-hmm. diwlin numéro en rek la ñu may wooye seen Sonacos yëpp Sonacos bi ñuy créé man ku doon jënd vingt deux litres ba mujj di am cent filles par jour bokkul ak casé. Mm-hmm. ñi nga daan jënd ci diwlin. diwlin numéro un laa tudd. Sonacos yëpp xam nañ numéro un laa tudd. même bi ma amee bi ñu nee gerte Sénégal baaxul indi laal benn tubaab bu wax ne gerte bi lu ci yor ma jënd ko. boobu benn waa bu dëkk ñooro tuuti mu dal ci suma kaw waaye mujj na jëndul gerte bi waaye mu jënd seen turtu bi mu demaat traite bi ñëw ci man di jéggalu ma ne ko nag man du ma jéggalee noonu jéggale du ma jéggalee noonu tey tooñ ma ma jéggalee noonu léegi léegi léegi loo bëgg ci laay ñëw waaw loo bëgg ñu jox la ko foofu noonu euh, dafa am solo adibu sumaare adibu sumaare jox la xaalis wala am lu ñu la jox mhm. ma ne ko man bëgguma jox ma dara bi nga lànkee loolu lu xew léegi mu dem dugg ci ruq bu mu ñëwaatee mu ne nee nga bëggoo dara ma ne ko déedéet mu ne léegi nag loo ñu mën a dimbali ba kenn dootul fay situation ba ceeb bi di fay ci ma ne ko boole leen ak ministère de commerce. ñu mm-hmm. boole mag dikkur biir so mu wo dikkura. mu mm-hmm. woom ak Amadou ñang ñu toog mën nañu bàyyi situation bi teg fii ñu toog. nañ ko bàyyi ñu bàyyi ko. dédduwaan bi ñu muñ quelque weer. Mm-hmm. yàlla def loolu yëpp yàlla dimbal ñu suturaal ñu yàlla def mu am. du man maa ko def waaye nag bokk naa ci ñi nga xam ne dañu ko doon organiser. Mhm. Eh, yàlla def bi nga xam ne nee naa bëgguma dara bi ñu ma booyee ñu ne ma bi ma nee nañu ko bàyyi dañu tiit sax ñu ne waaw boo ko defee mën na indi guerre mën nañ ma ne ko du daara. Mhm. du daara diwlin bii bi nga xam ne fexe nañu bay directeur Sonacos xeex ak man indi problème ma ne fu ñu wax kuli kono laa doon jël jël diwlin gënandi koto di jaay Sénégal bu njëkk du fay douane du fay dara téeméeri douane 3 francs dem nañu bee def ko kilo bu nekk 120 francs kilo lu fay 3 francs dem bee 120 francs waaye terewul bi ñu ma bindul ñaan naa bàyyi bàyyiwuma damay doon liggéey rek. léegi ceeb nag ñu ngi. ñoo la ñaanoon nga bàyyi boobu. Sonacos euh, voilà. ñan ñoo la ñaanoon nga bàyyi nga bàyyi. déet Sonacos kay dafa dafa tiit. parce que nee nañ mun naa indi guerre si Sénégal ak Mali man ko bu guerre doon am kay bi ñu def moo di Modibo Keïta guerre la war a am. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. ma ne ko nag man. parce que parce que euh, euh, bi ñu ñëwee ci atum 2008 euh, yaakaar naa xew-xew bi foofu la tënku. Mm-hmm. sa diggante digganteeg waaw boobu la nga xamante ni tey jii jafe-jafe goo dund tey jii foofu la jóge xam nga beewaaw boobu. jafe-jafe amu ci. yow comme que sow nga sant mun na am nga xam tuuti ci càmm xaj bu boobee guddi du til la bukki la i bukki ndey nguufaan xaj bi yóbbu waaye xaj bu dee til la bu gisee day dal ci kawam day wax kii ñoo tolloo waaye bukki bu ba yawee yàgg bu bawee yàgg borom jur gi day génni xam ne bukki la est-ce que dégg nga wax bi bu baax mm-hmm. loolu mooy wax bi biyaawu xam nañ topp ma parce que boo fekkoon biyaaw ma topp ko nangu nañu toog biyaaw musuma topp mhm. waxuma duma leb biyaawo waaye man nee naa la crédit lu ne waa à partir de chaque poste crédit lu ne laa bëgg a ubbi jëkk a ubbi ba yàgg ma ubbi biyaawo mooy bi ngaa xam ne dem na ba yéen di commencé dugg ci banque bi ma ubbi biyaawo ubbi société générale ubbi bii siis ñu yëpp kenn mënul wax amal naa la te bis bu ne ma jàppaleen càcc banque yi ñu ñuy sàccee nit yi moo taxoon sax ina quoi ma defee woon duñ ma bàyyee noonu danañu wax ak man amu ci ku ma jàppu càcc hmm? waaw xam nga ñoom dañuy defe ne boo jàngoon tubaab waaye ñoom jàng nañu balaa juge nit du ñu wax yi juge nañu bàyyi juge juge yi yomb nañ parce que juge nit la hmm. nit moom nax ko yomb na bu njëkk garab bi muy atte loolu dafa gudd du mën a kii garab bi muy atte nit moo fexe bee nax garab bi adama jur ñu rek ñaata adam moo am kooku kay lu yomb xam la parce que boo feetee ñaata adama kon du biyaawu mais dafa am ñu nekk ci ginnaaw voilà ñoo tax biyaawu ñeme waaye biyaawu xam na ne bu toogeeg man ñu ne ko man naan laa la amale ñan ñoo ne ci ginnaaw biyaawu ah, loolu nag xam nga man bi ma waxee ci rajo mm. ñu bari dégg nañu xam nga boo waxee ñëpp dégg nañu def nga erreur mm. waaye ñu bari dégg nañu wax naa ci rajo ma ne leen képp ku mu amal bor def naa ci place bi boobu taal soixante onze ans ku ma amal bor na ñëw garaa Dakar fayu ma bàyyi ki yàlla def fii tey mu nekk président de la république moo ma woo seen mu premier moom président Macky Sall waaw boobu taa premier ministre la mu ne ma Ablaye ne boobu dañ ko yónni nekkul président mu ne Ablaye nee na Ablaye nee na bu bàyyi commerce loolu la ma delloo woon ci commerce waaye man bàyyi woon na mu ngi dund lu taxoon nga bëgg a bàyyi. su may aaj sori na xam nga léegi pour nga yaakaar kii dina donn liggéey bi ci comme man du yomb. Mhm. da ngay xam xam nga bu ngeen seetee rek kër gi léegi laa xam ne su beneen jabar bi su ma bi mbokkale ci moom bu jege daawoon naa ko gis ci kër gi waaye xaw ma woon lu ko indi daawoon naa ko gis ci kër ñoom kii maam jaara waaye xaw ma woon. ni ñu bokkee seen ñaari maam rek bokk ndeg baay mhm. waaye Grand Dakar lañ dëkkoon boori marché ba mhm. kooku xam naa xam naa ni boobu dafa yor machine bi ñuy def nii loxo mhm, benn bi la woon moo taxoon nga bëgg a bàyyi wala boobu am na loo ragal aas bi te boobu réglé naa fay banque yëpp wax ci rajo kii ma indil nii fite na jël sumay kayit yëpp def ko ci tuuru banque moo ma jëkk artu ma ne ko déet maggan naa kay ma di woon liggéey bay bëgg naa bàyyi xanaa ko kay kenn du ko aaye nit kan moo jël sa la notaire bi notaire bi notaire bi mu ne bu ma aayee ma ne ko mukk damay wax tafe ñi ma denk seen alal ñi ma denk seen kër nekk ay yeneen réew kenn ku nekk bu ko déggee dana jël alal bi denk jox ko keneen mm-hmm. man damay bàyyi bi ma nee damay bàyyi mu wooma man ma Ablaye nee na bul bàyyi Eh, buur nag waxam waaw la sant mu bon mu baax ma duggaat ci liggéey bi bi nga xam ne kii woonam ma duggaat ci liggéey bi indi bateau yi ba léegi lu ñuy wax moo doy waar hmm. man bi ma defee euh, su ma réglé ak ki nga xam ne expert la dafa amal nañu la trois milliards neuf cent et quelques millions maa ngi këyit amal nañ la ko amal nañ ma. kan moo la ko amel banque bi wala. banque bi banque bi état bi man bariwul li may liggéey ak ñoom parce xam nga lu tax dafa jafe. boobu banque bi yaawoo la ba léegi mu ne la amel nañ la 3 milliards 800 et quelques millions. 900 mm-hmm. et quelques millions. Mm-hmm. ñu ne ma nag euh, bu dee yow rek ak sa expert du baax. Mm-hmm. nañ def requête yóbbu tribunal def requête tribunal ñu convoqué banque bi. ñu dem bee Mara jàpp directeur bi fii nekkoon. Biawo la ba tey Biawo. Mm-hmm. bi ñuy tere kooku mu ngi tudde rax ni jour bi ñu Abdou Mbaye mu ngi toog hôtel bi nekk ci wetu Soumbédioune. Mm-hmm. ma ne ko kii triant la. naar bi waaw. Mm-hmm. ci biir réunion Abdou Mbaye boobu mooy directeur banque bi nekkoon man actionnaire la. ñoom mbàkk yi fay fekk nañu ko. ñoom kii nekkoon maire kaw Kaolack. fekk nañu ko. action noire yëpp fekk na man kii trial man action noire laa boobu am naa treize mille et quelques te tey ku commencé ci trois mille bi am treize mille xam nga mu ngi yéeg. Mm-hmm. boo jaayee banque yëgul kenn convoqué ko ñu nar a def réunion man kii trial la. Mm-hmm. boobu Abdou Mbaye mi ngi teew. mu ngi teew Abdou Mbaye boobu lan la moom. mooy directeur général banque bi. banque banque BAO. déedéet banque euh, kii BST. d'accord ah, BST. BST xam nga moom lañ jëkk jënd après ñu jinda biyaawu ah da nga ne biyaawoo moo njëkk après BST. déedéet BST la njëkk jënd moo njëkk. Ah. bi ñu ko jëndee. Mhm. man comme que actionnaire la. Mhm. ma ne ko kii lu tax ko woo kii wuñu ma kii triant la dana fi def musiba. Mhm. xaw ma woon musib bi ci man lay dal waaye soupçonné naa ko. kii jóge woon Maroc. mu nekk président conseil administration mu jóge Maroc. bu banque bi. mu ne ma waaw mun nga rax ni toog nga toog. ma ne ko man seen pali bi boo ko buddi woon te fii ma wax buur bi lépp lu may wax ci bon mu jox ma rendez-vous bureau rax mi quatre heures ëllëg ma ak moom ak rax ni toog ma ne ko kii trial la dana fi def ni wax ko ko rax ni toog président conseil bi toog ma toog ma ne ko kii trial la bon bi dem na bee war koo def xam nga ni ñu koy kii ñu ñu ñu def ay gendarme pour ñu jëli ko. Mhm. ñu defal ko intervention ñu ne def feebar. Mhm. ñu ne ko certificat médical ñu bàyyi ko. Mhm. tribunal jox ko benn expert expert bi fàtte naa tuuram waaye maa ngi kayit yi. mu seet mu ne li ñu wax kayit bi ñu wax ne bookar amal la leen bu ñu ko génn mënul génnee bookar ñoo ko amal xaalis. loolu nag jaaxal banque bi. ñu dem làqu ki ma ëpp doole waaye nag dinaa leen xamal ne banque bi moom xel xalaatul ne xam na ne moo ma amal société générale bi ma nee amal naa quatre cent soixante millions ñi ci nekkoon ñu ngi dund kenn déwul ñu weddi mujj bu jëf dañoo mujj fay ma ñu ne dañoo tëj suma compte Citibank bi ñu ma sàccee ma gis ñoom dañoo defe ne ko jànguñ tubaab waaye ñi ba ñuy jaayante ak nit yi di jaayante ñun man bima juddo ma ngi juddu tarankat bi ma juddoo ñun jënd duñ jeex ci dëkk bi man dama non ak su mag ñu tok benn bis muy waxtaan ak nit be yag rek mu ne ma gaan waaye mu dem yoonam ñi yóbbu man dama non ak su ma na jaay nangam nangam ñi di ñooñu leen tali ñu ñu leen jaayee léegi léegi jafe-jafe ji bi mu amee bi coow commencé am a yóbbu am na a yóbbu tribunal mujj naar bi ndax jàpp nañ ko wala ñu naar bi am na fi bàyyi nañ ko jàpp xaw ci koo xam mooy nekk seen tutelle mhm. ndax tey bu dee banque bu ndaw la am nañ li nga xam ne mooy banque centrale mhm. ñoom ñëpp fan nga fa dem plainte mhm. ni leen lii am na fa moom moo leen di woo teg leen yeen ñaar ni lii ak lii tranché ji loolu kay bu amoon dootuma ko wax ci banque centrale yóbbu naa leeteer mais à mais man jox naa leen ñaari leeteer ba léegi tontu wuñu ma ba léegi ba léegi tontu léegi tontu wuñu ma bu amoon man bàyyi naa wax bi fekk ne banque bee nekk naa léegi Attijari banque waaw bi mu nekkee Attijari banque mhm. yóbbu naa ñaari leeteer man suma loxo jox banque centrale banque centrale bi nekk Abidjan jox naa ko leeteer yow lan ngay lan ngay wut ci banque bi exact man la may wut banque bi nañ seet kan moo amal sa morom hmm. nañu génni kayit bi tax maama parce que xam nga dañu mujjee boobu onze bateau ceeb laa indi mm-hmm. indi ñaari bato mboq mm-hmm. xam nga muy treize mm-hmm. indi bateau dugub bu xonq deux mille huit indi bateau repas mooy quinze bateau bateau yëpp fay naa leen bu mu des ñeent ñeent yi ñu del delloo xam nga waru suñu ko woon delloo fournisseur bi ñu delloo ko fournisseur bi mhm. waa ko calculé bateau yi mooy dix sept milliards mhm. mu ne léegi nañu ko jaaw gaaw parce que pour ñu mën maa jëñ mhm. xam nga lii yëpp dañuy wax rek xam nga sa patron su ko patron nga mu yónnee xam nga ba ngaa yaa ngi toog nii ci benn ministère bu ko président wooyee du la tàggu day ciig rek daw dëgg ñu ne gis nga France bi ma commandé di importe bateau mboq yi français ñoo ma doon jox société bi ñuy wax euh, Subleinacos waaye dañ di bee yàgg rek ñu ne kii bu bu màggee dana naqaree buddi hmm. ñu bàyyi ma mu jëkk euh, kii simis euh, maam fa client dañuy wax kii man am na koo xam ne français la jógoon Edgar Puccini nekk na sama kër sii jours hmm. bi mu dénnee film ci yéen président de la république waxuma bii léegi président de la république moo wax ne lii bu ñu koy génne dañuy wax ni ñuy jàng xamuñu dara. ñu mhm. loolu nag yan laay léegi yow banque bi da nga da nga wax ne ne ñoom ñoo la amal xaalis xam nañu ne ñoo ma amal. ñoom ñu retourné ne yow yaa loolu xam nga banque léegi bi ñu ne yaa leen yoral luñ la teg. voilà dañu wax ne amal naa leen 7 milliards. 7 milliards lañ wax. voilà man nit kay buy wax amal na la. ana kay. Mm-hmm. Ah, ma nit kay boo koy wax amal nan la amale dañu mujj benn bateau boo xam ne dafa dem ba wàcc Guinée mu commencé wàcc 5000 euh, tonnes. Mm-hmm. émoon maa am. ñu jë. Euh, relevé bi 15 bateau yaa ngi nii. ñu ma indi 2008. Mm-hmm. seetal yëpp 2008 la. waaw indi am na kayit bi ma lay woon. xam nga ñoom. Euh, léegi li ma mën a wax. mooy léegi léegi sept milliards yi. mais yaa leen ko yore. maa leen ko yore léegi man lañ nan lañ la ko toppee. ah voilà. loolu nag laa bëgg a xam waaw gis nga man BST biaaw moom bind nañu kayit amaluma leen dara. Mm-hmm. Mm-hmm. bii laa amaloon BST quatre milliards et quelque mu ngi nii fay na. Mm-hmm. xam nga kii moom kenn mënu ko weddi te dafa am avis de début. bon bii. su ma espèce bu mu seetoon trois milliards neuf cent bi ñu ma amaloon mu ngi nii mm-hmm. Mm-hmm. man soo fekkoon banque bi mm-hmm. xam nga nee naa la xaj guddi bu bayee ba bu yàgg bukki la bukki la waaye du til la léegi sept milliards yi maanaam nan lañ la ko toppee ndax voilà loolu la laa bëgg ñu ñu nañuy arbitre kenn waxuma président de la république waxuma premier ministre waaye nañu wax kenn ku xam dara ki liggéey bi ñu seet ñii xam banque. Mhm. ñu ne kii nee na topp leen ko nan ngeen koy toppul. Mhm. kii weddi li ngeen topp moom nee na leen topp. d'accord ñu seet wax bi moom li mu bëgg xam mooy. Mhm. ñoom banque bi bañ jàppee que da nga leen yoreel 7 milliards. nuñ def am na noo xam ne nan lañ def yan anam lañ def ba jël sa bien la jël jaay ko ngir mën a. wala dañ laa topp léeg-léeg dañuy seet sumay kër yi. mën nañu leen jaay 50 milliards ou 60 milliards parce que kër gi 1930. lañu ko def titre foncier mooy bii nekk yarax ñu ngi ko jëndoon quarante cinq mille francs mille cent trente man ma jënd ko mille neuf cent quatre vingt quatre cent millions mm. xam quarante cinq mille bu ñu ko jaayee cent ñaata pour cent mm-hmm. mm-hmm. quarante cinq mille francs mm-hmm. ñu jaay ko cent millions man maa jënd maa ngi ak tetwant bi léegi nag ñu xam ne place bi ak magasin yi ma ko tabax mën nga ko jaay cent milliards ñu ne léegi bu ñu jaayee lu ñu pertoon yëpp mën nañu ko dabu ñu am ñi leen dimbali ñu dig ci rek la waaye xam nga nit kii ci boppam boo nee kii amal na ma wala kii mu kii mu ni kii moom amal nañ seet ñu xam léegi kër gi dañ ko mujjee jël wala dañu dañoo dem eh, xam nga dem ñu seet kenn koo xam ne bu mu koy def man yëguma bu mu koy def affecté nañu ko ba pare mu gaawantu rek def ko njaay mi léegi nag bi nga xam ne dem nañu tribunal. kër ko jaay. jaay ko seen bopp. ñoom banque bi. waaw mhm. jaay ko seen bopp. Mhm. kooku euh, mooy pour ñu mun a kale affaire bi waa ji ki nga xam ne moom moo leen dimbali bi ñu jaay mooy ki nga xam ne nangu na miti kayit yi si suma tur. ñaata ñu jaayee kër gi ñëw ñoom ñaari kër yëpp benn bi maa ngi ko jëndoon mu ngi nii. Mhm. yaraax déedéet benn baa ngi nii fii di ok ñuy jën euh, am na juróom benn magasin hmm. ñu daal di ko jënd ñaari kër yëpp jënd leen quatre milliards et quelque te xam nañu ne mun nañu leen jaay cent milliards léegi nag ñu ne ah bu ñu profité lu ñu perte yëpp fii lañu koy dab hmm. xam nga jour bi ñuy def biyaawu di ko def ceebayaawu ñu ngi riñu woon Corée du Sud ki nekkoon secrétaire général mu ngi dund wax nañu gouvernement Abdou Diouf nee na na nga wax loo ci bëgg ñu may la ko action ma ne ko bëggoon banque xaraam na xam nga nag léegi laay door a xam dëgg-dëgg xaraam banque xam nga man bi ma jëkkee naan sangara xaw ma woon sangara ci butéel lañ koy def sangara yi ma jëkk a xam pour yi nekk bund ñuy sant si di wax ne buur lañ mhm. ci lekket lañ koy def kook lañu koy naanee naan ci lu bari après mu indi leen ay problème ma ñëw fii su ma chef di ma yónni naa ko jëndal stork beer man xamul lu ñu stork beer xaw euh, butéel sirme rek laa ci xam ma ma fay benn bis rek ma jël suma juróom benn jënd benn stork koñ bu ma nekk moo gën a bon ci dakaar waaye gis nga ñii jaay yamba ñoo gën a moytu ñëpp boobu damay génn mille francs ma ne ku ma woon xobu yamba ma may la mm-hmm. waaye mun ma am ku ma woon mm. nekk naa fa cinquante ne ba quatre-vingt-six laa joore gis yamba gendarmerie yarax musuma gis yamba yamba puun la mhm. man li tax ñu mu doroga leen yenn dorog yi mhm. moo ma jaaxal xeetu puun la rek mhm. dafa am lu ñu ci def rek xam nga léegi léegi léegi sa kër yooyu carte euh, loo xam ne euh, mënoon nañ ko jaayee lu mat cent milliards buñ la ñu jaayee ko quatre milliards waaw loolu kër yi léegi féete na boor noonu jël nañ ko jël nañ ko noonu déet jëlaguñu ko gum moom la ñooy yaa ngi leen di ah, maa ngi leen di topp ci yoon léegi pour waxtu bi daanaka jeex na ah. nguur gi tey lan moo ciy taxawaay maanaam ndax man dañu ñaan Sall xam nga dañ ma ak tudd nañ tamit dégg nañ tamit turu Abdou Mbaye ci biir dossier Abdou Mbaye lépp lu ci am moom la parce que man bi mu may woo suma kër mu ne ma ñu def banque boobu seytaane ruux na ma xam nga auzu billahi mina shaytaani rajim lu am doole la hmm. ma dem fekk ko banque centrale mu ne nañ def banque Abdou may proposé le loolu. bu ma posé mune amna ko def fi xaalis yu bari bu nañu def bank étude bi cher na man ko ñaata mune 10 millions ma jël 10 10 millions ci taxaway bi jox ko ko. mu defar étude bi mu jox ma ma dem kër mamou tour yàlla nako yàlla yërëm yàlla amna na yërmande bu dul jeex. ken xamul bu yàlla commencé ken xamul bu yàlla yem. mamou tour mune amna erreur na dem jëli Abdoul Mbaye ma dem jël Abdoul Mbaye yóbbu kër mamou tour mu xool affaire bi ci kanam maamu uh, Abdoul mbay Abdoul Mbaye kontaan ñu jël ko président conseil administration xam nga loolu dana ma neex. Mm-hmm. maa ko woon Abdoul mbay banque bi am na fekk ñu may banque bi banque bi bees kii la woon ñu may ko Aliou Sow xam nga léegi jël Abdoul Mbaye président uh, kii uh, mu tëdd Mamoudou Touré comme président conseil administration xam nga day neex ci moom. Mm-hmm. amee oto amee chauffeur. te maa leen boole ak moom xam nga kooku dana ma fonk mhm. te it jege nañu dëkk xam nañu mhm. xam nga bukki moo gën a xam kër bu bari xat ñi ngi ci àndaloon yëpp daanaka jamono ji dañ la woon ginnaaw waaw xam nga non foofu dafa am solo maanaam mhm. Abdoul mbay bi banque bi euh, Abdoul Mbaye Abdoul Mbaye bi bi adduna bii di jeex xam na fu mbir mi dem moom dong lañu mun a woo woo mu wax ci lu leer te ba léegi kenn wax lu leer ci sa dossier bi voilà dossier bi banque bi mënul jël jël suma xaalis bi mu demee sax bi mu tàng boobu ñu ngi ci banque bi sama xel parce que lu nekk damay defante ko moom lu nekk xam nga koo xam ne indi na cent trois bateau mm-hmm. xam na léegi importation mm-hmm. man nit yu bari ñoo may laaj waaye man du ma leen laaj waaw mm-hmm. léegi même boo mokkalul boo wàccee ñetti yoon doo ñàkk du ñàkk aaya boo nga ci mokkal mm-hmm. doo ñàkk aaya boo nga ci mokkal mm-hmm. Abdoul Mbaye lu tax woowuñu ko Abdoul Mbaye ah loolu nag loolu nag xam nga man comme que xaalis bi ci banque laay verse suñu amee luñ ci def mm-hmm. banque bi la war a topp waaw ndax yow yaa ngi déggante ak Abdoul banque bi moo ko war a bokk yaa ngi déggante ak moom léegi léegi beneen question bi mooy président Macky Sall moom mi fi nekk léegi lu mu maanaam lan moo ci taxawaay ndax yëg na doomu réew mi nga xamante ni na ci moom mi nag mhm. bu demee ba justice bi am lu ci kale moom mën na ko dekkale te moom moom ko ñaanoon ba mu naree bàyyi ba mu naree bi nekkee premier waxuma la loolu moom ci boppam mhm. waxuma sax moom nangu kenn ku xam banque wala mu ne banque centrale wax leen ci lii mhm. ñu wooma bu ñu nee bon kii nee ngeen nee ngeen nee ngeen toppa ngeen ko bor xoolal bu ngeen eh, kii topp ngeen ko bor kii ne topp leen moom moo leen di topp waaw ñu seet xam nga koo xam ne topp nga ko bor du jox jël onze milliards ci sa compte di ko jox beneen compte duñu ko nangu mm-hmm. jël naa bi ñu nee topp naa leen bor jël naa onze milliards deux cent mu ngi nii ñoom ñoom biawo biawo cest mm-hmm. lañ ci bind million deux cent trente deux milliards un milliard mm-hmm. onze milliards onze milliards waaw est-ce que da nga may topp bor. ma jël si ngay waaw loolu loolu. ko déposé ci beneen compte. ci beneen compte léegi ñale euh, dañu wax ne bu leen wax ak Bokar affaire bi Bokar. Mhm. Euh, jàngul tubaab waaye xam ne lu muy def gis nga. dama am lu dama lay woon xam nga. Mhm. bateau yi ñu ne bii fay naa ko d'accord nañ bii ñu ne fay naa ko. mu ne waaw ñu ni waaw nit ñi dañu gis mais explication rek pour pour pour ñu ni mhm. mhm. bii fay naa ko ñu ni bii fayuma ko ne ni bii fay naa ko ñu ni naa ko ñu ni fay naa ko naa ñett yi jiit ñett yi bi ci diggante bi ñu ne fayuma ko mhm. bon ñi nga xam ne li ma fayul woon dañu maa delloo dañ delloo kayit bi fournisseur bi xam nga koon lii bu ñu toogoon lu yomb a lijjante la mm-hmm. léegi ndax bind nga nguur gi loolu lañu la laaj direct euh, ndax bind nga président Macky Sall waaw pour wax ko mu wax ci problème xam nga bind naa mm-hmm. waaye man li ma gënaloon mm-hmm. moom mu boole ma ak ki nga xam ne war na seet ñi nga war a xam ñu toog d'accord bu ñu toogoon wax rek mu jeex. d' accord danañ ci danañ ci dikkaat xam naa oustaz Mouhamed Diop euh, dañ lay dañuy ñëw ci yow mbokk yi seetaan it defe naa bu bu bu fekkee temps dana ko maye donte benn auditeur la. Mhm. ñu xaajal leen ñu bokk ci. defe naa bopp ñëpp ubbeeku na question yi ñu amoon tamit euh, yu ci bari leer na ci bopp yi. Mhm. Euh, boromi xel ñoo toog di seetaan waaye à travers ndénkaane nguur gi ñi ngi seetaan. Mhm. ñi ngi seetaan. Euh, defe naa bu ñu fi jógee tey yaakaar nañ ne solution dana am ba ñu woo euh, banque yi woo Bocar Samba Dièye ñu toog wax mm-hmm. ndax nag bind naa banque CBAO ne leen nañu wax ci problème bi tontuwuñu ma ci problème bu toll nii ay milliards yi milliards yi milliards loolu tamit lu doy waar la mm-hmm. mu mel ni population bi yëpp tamit dañoo soxla exactement nag ñu wax ci dossier bi nii loolu tamit lu lu mat a bàyyi xel la euh, Oustaz Mouhamed Diop boo jàngatee li li góor gi wax yépp nan nga koy tënkee ci diine euh, li may damay damay damay ñaan yàlla yàlla yàlla barkeel ay fanam yi des yàlla bàyyi mu nekk

Euh, yaa ngi ci biir ligne bi euh, yaa ngi ci biir émission bi ñu euh, déglu la. waaw naaj sëñ bi. ñu ngi sant yàlla alhamdulilah. ñu ngi banque amee pas de xaalis boo ko tàmbalee ñoom ñoo ko amee xaalis ñu xaalisam bi. Mm-hmm. ay prix mm-hmm. ñu ngi lay dégg waaw. yaa may dégg. waaw ñu ngi koy dégg waaye xam naa dégguñu bu baax bu kenn ñëwee rek ñu jël ko. waaw euh, Oustaz euh, Mouhamed xam nga nit nit ñàkkam fay fay fay fay fay ko fay ko la la la sant mhm. euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay mel ne da ngeen ñuy fàttali xilful fudul effectivement muy muy lu amoon biir màkk inal fudula taahadu wa tawaasaku allah yaqi rabbi man li makkata zaalimu effecti effectivement mu mel ne même bu dul diina sax ceddo gi rek dañoo mos a bañ jaay doole effectivement loolu loolu moo tax autorités yi tey jii nii seen ñoom la ñu war a gën a interpeller parce que euh, xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay dafay wax ne yàlla dafa wax ne ñett a ngi nii ñett a ngi nii ana xasmuhum yowma alqiyaama talaatun ana xasmuhum yowma alqiyaama ñett a ngi nii maay xulóog ñoom allaaxira mais avant allaaxira di ñëw am na ko fi yàlla subhaanahu wa taala teg koo xamante ne moom moo war a lijjanti li dox ci diggante jaami laata allaaxira di ñëw te mooy suñuy autorité tey jii nii da ngay tiit bu fekkente ne am na ay nit ñoo xamante ne ñoom ñoo bëgg a sàkk suñu réew di ñu jiite te ñu gis tooñ di am ba pare ñu dëgg ci seen tànk te bu doon ab tubaab la est-ce que duñ ci wax question boobu tamit dañ koy posé xam nga tey buñ dégloo lu mel nii day dëggal li nit ñi tiit naan boo nekkee benn sénégalais di góorgóorlu dañ lay xeex. Mhm. ab tubaab bu ñëwee ñu dooleel ko. Mhm. tey sàmm Samba Dièye ku ko joxoon projet lu raw Auchan mu taxawal ko Sénégal. Mhm. léegi boo waxee ñeneen dañu mujj naan sénégalais yi liggéeyu ñu tubaab bi ñooñu mujjee liggéey est-ce que du euh, loolu tamit problème la. sa sa maam dafa wax benn mbir nee na bi ñuy mujjee bi muy euh, français yi mu doon jëflanteel dañ ne kii ku ko bàyyi ba mu dëgër kon kenn dootu ko mën a ti tënkati. moo ne bugguñu ñu am li nga xamante ne mooy liberté pour moom sunu sunu sunu lanc. c'est-à-dire sunu sunu. sunu xam nga mm. tey boo man damay damay wax ni euh, moo xam euh, journaliste yi yeeg ñooñu def benn documentaire bu am solo pour mm. la jeunesse sénégalaise mm. ci boo xamante ne Bocar Samba Dièye lañ koy tudde mm-hmm. ci benn nit koo xamante ne moo xam am na titre yu bëri yuñ ko mën a ëppee koo xamante ne mu ngi tàmbalee ci àlluk Fuuta ga mm-hmm. wala àlluk Matam ba ñëw ba nekk koo xamante ne moom mooy euh, nuñ koy tuddee nombre one mm-hmm. <laughs> tey jii 103 bateau 103 bateau mu ngi lay wax ne ci wàllu diwlin gi moom lañ doon wax ni moom mooy numéro numéro un mm-hmm. tey jii nii ku ku ku ku ku ku ñu war a delloo njukkal la mm-hmm. te delloo njukkal gi du ak médaille bi ñu koy tappal delloo njukkal gi mooy àq bi mu am ñàkk ko injustice bi injustice boobu ko ko jël ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah waaw sëñ bi sawa na ngeen ñu ngi sant yàlla alhamdulilah di bu baax yàlla ko yàlla nangoo di kontaan tamit euh, ci ci émission bi. Mm-hmm. di ñaanal bu suñu maam ji toog foofu. Mm-hmm. yàlla yokk ay fanam. amiin amiin man de dama jàng ci moom. Mm-hmm. ndaxte moom Sénégal fii la toog liggéey ba yàlla may ko li mu am tey. génnul benn yoon la fii di Sénégal. te yàlla boobu dimbali na ko bu baax. li ko dal nii nag du kenn ku ci kontaan. Mm-hmm. waaw du kenn ku ci kontaan euh, oustaz mu ñëw ak Fatima euh, Fatima loo loo jàngat ci ci góor gi. Euh, boo dégloo fi mu jaar ba fi mu yegg si. dëgg mu nekk lu am solo comme waa ji génn léegi nu mu ko waxee képp ku déglu histoire am rek daanaka dangay am li nga xam daf la metti sa biir xol genre sénégalais bu mel nii. jamono ji ñu tollu raar na trop boko ko di nga xamantene nit ku réaliste la di nga xamne ne nit ku gëm liggéey la di nga xamant di nga xamne ne aussi nit ku bëgg réewam la parce que boo xoolee euh, bu njëkkaan tubaab yi bi fi nekkoon euh, sénégalais yi si ay histoire yi ma dégg sonnon nañ parce que tubaab yi dañ doon indi fi ay marchandises yu bëri mais nuñ leen ko doon jaayee dafa cher waaye moom tamit dégg naa ne daan na indi lu bëree bëri mais lu mu doon joxe euh, sénégalais yi dafa daan moins cher à chaque fois donc mu yàgg jàppale réewam président Abdoulaye euh, dossier euh, suñu maam ji réeru ko ki nga xamante ne moom mooy Macky Sall tamit tey mu ngi fi dossier bi réeru ko tey am na ko dugg nii ñu jël mhm. salaamaaleykum asalaamaaleykum sëñ bi waaleykum salaam wa rahmatullah nañ dafa coono mbaar yéen a ngi ñu ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah tabaarakalla macha allah dama bëggoon participer ci émission bi mhm. euh, sëñ bi ndax lii doomu réew mi ñun ñi nga xam ne ñoo di ay gone mm-hmm. nekk ay doomi daara it mm-hmm. di ak ñuy doole mm-hmm. gëm suñu bopp xam ne réew mii ñun mën nañ koo yore ci suñuy xam-xam ak suñuy jikko ak suñuy jëf bu ñu xoolee ci nag ñi ñu waroon a roy ak ñi leen réew mii di def waaw ndax kon ndax ñun dinañ mën a toogat ci walla ñuy jéem a def man xam naa nekk naa Congo Brazzaville nekk naa Angola wër naa réew yu bëri ci àdduna bi gis nga Bokar moomu li mu defar ci ay doomu tukulóor dañoo bëri ay doomu xaalpulaar yoo xam ne nawuñu ku dul ku mel ni moom ku mel ni Sile Gise ku mel ni Abu Cimb ku mel ni keneen ak keneen ñoo xam ne dañoo juddu ci dara di teg di teg di ko ànd ak seeni mbokk di ko ak seeni jarbaat di jàngale di defar ñuy naw ci ñoom waaye boole na ku ci nekk banque ak état complot na la lekk sa alal ñun xaalpulaar yi tey jii yàlla may nañu presque ñu ngi ci àll bi la lan mooy parti financier bi nga xam ni ñi am ko ñu dafa naw ñooñu jàng ci ñooñu li ñu am fiñ toll nii seen am xamu ko li tax ba am koy gone yi actuellement bu amee ci àll bi sax ñemeetuñ koo indi doy na dama la ne bu ñu amee ci àll bi ñun ñemeetuñ koo indi. Mhm. dañuy daw ak moom di ko yóbbu ci yeneen i dëkk ak di ko fa investir ci xam ne borom dafa juddoo Fuuta Jemali Siraas Côte d'Ivoire Togo jaar Kéru bët jaay bakkanam ndax juddu ci ñàkk dem ci ay miinu jama ñuy dugg ci ay commerce ñuy daj lu ne ci àdduna ñu koy muñ. Mhm. bu la yàlla mayee sax ñemeetoo koo indi Sénégal. Eh, ndax koo wax ñu ne la impôt domaine def na ko nangam banque def na ko nangam fisc def na ko nangam. ba ku am téeméer juróomi dërëm mooy ñëw ndax moom ngay jox say waa kër ñu koy lekk ak di ci suturloo ñu bëggee li leen di wax lan la. Mm-hmm. le président de la république Macky Sall xam na lan mooy diaspora xalpulaar bi nga xam ni ñu ngi ci dëkk yooyu ma lay wax ndax jaar nañ fa jaarati fa ñu sekk ñoom ay teraanga yu wóor jàppale leen ci lu bëri bëri te euh, sam papa jooju bu ma ko xoolee man sama yaram bi day daw jooy rek laay bëgg ak ñu mel ni moom ñeneen ak ñeneen dama la ne bu fekkoon ngeen wër ci biir diaspora wu xalpulaar bi bu ngeen waxtaanee ak nit ñi ñi ngeen di jàngal ci ñu mel nii dañoo bëri Eh, jàngul kay kere ya milliard kooku kay jàng na da naan jàngu nasaraan waaye ku jàngul du yore milliard di ko diriger dërëm ñaar dërëm ñetti dërëm juróomi dërëm di ko génneel asaka di ci dimbale ay mbokkam ba mu dooni milliard d'accord jërëjëf te te histoire bi dafay bëgg a yàgg effectivement jërëjëf bu ngeen xoolee boobu temps ba léegi amul benn réaction boo xam ne bi am na lenn Mm-hmm. loo xam ne lii ni nit ñi gis nañ ko ci lu nuróog dëgg ndax lii dina fital nit seen digganteeg yàlla yéen ñi fa toog ak seen traayu bàmmeel mm-hmm. nañ leen ko waxante ndax lii dana fital nit mm-hmm. te am na fi nag ñu fi yor loo xam ne liggéeyuñ ko de am fa daay te ñu ngi dem ak moom ñun ñëpp ñu koy gis benn ak ñaari ak ay milliards d'accord <laughs> jërëjëf ñu sant la gërëm la waxtu wi moo cate jërëjëf jërëjëf gërëm nañ leen waa papa jooju ndax ànd na ak yàlla de te yàlla ànd na it ak moom. d'accord yàlla suturaal na ko ba mu am at yi mu am. jërëjëf lépp lu mu am tamit xëj na la jërëjëf. te na yàllaa ngi gërëm la jërëjëf. jërëjëf dafa am lu bëgg a. dama lay wax ni. Mhm. amoon na fii nit ku ñuul. dafa usine bu mag. mu tudde seen leeg. mu Moutar Sow la tudd ni ñu ma def lañu ko def bee laqal ci ko jël kër gi jox ko ay mu jën na Codi Paral Codi Paral siiw na. Mhm. mooy defar Nestlé. Mhm. Nestlé mu ngi ko doon mu ñëw société ak moom pour bugg a euh, nax ko. Mhm. bi ñu commencé di defar si Nestlé man ci suñu bopp wax naa ko ci noppam ma ne ko tubaab yi de ah duñ dem ci yow bu baax mujj na ñu sànni ko ci àll bi. kon ñoorey seen li ndel benn benn Sonacos mhm. da doon def ay subvention ay deux cent milliards ak trois cent milliards bénéfice rek lu mu gën a néew dana am vingt milliards par at euh, boobu daal mu ngi jël dernier appel bi dellu si ci loolu salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatulah ku baax bisimilah ñu ngi jaar wër yàlla na ko yàlla nangu naka yi tey alhamdulilah Paa Ousmane est-ce que duñ ko leb <laughs> bisimilah waaw Eh, ñu ngi si jàmm baax alhamdulilah. ñu ngi nuyu suñu papa jooju taxaw. Mhm. suñu papa jooju toog. Mhm. ma ne que ñu ngi nuyu suñu papa jooju toog. Mhm. ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay ngi lay fay. Eh, di ko di ko di kontaan ci moom lool it di ko encouragé aussi. di ko ñaanal ndax gis na ni daal wax dëgg yàlla jul jikkoy julit mi ngi ci moom sama ci li mu wax. wax dëgg yàlla daal ñun dañ koy dañuy naan moom la. allo. waaw ñu ngi waaw. waaw ñu ngi ñaan nag ñi nga xam ne ñoo ko war a jàppale ñu ngi leen di ñaan ñu jàppale ko parce que lii day ragalloo ñi nga xam ni am na nañu seen xaalis bëgg a investir ci réew mi. Mhm. parce que ni ñuy jàppale ni ñuy ni ni ñuy jàppale étranger yi bu ñu ko doon jàppale sénégalais yi wax dëgg yàlla yaakaar naa ni daal dinañu mën a am Sénégal bu gën a baax ni mu mel nii. Mhm. te façon bii day ragalloo képp ko nga xam ni opérateur économique nga parce que ñun ay xale lañu di def commerce waaye bu ñu gisee façon bu mel nii suñu xel dootul dal. Mm-hmm. bu day day day tax fi mu toll nii daanaka koo gis mu xaalis xaalisam dootu ko nangu def ci investissement. Mm-hmm. dafay dem rënk ka te loolu xam nga ni daanaka du am njëriñ ci moom du am njëriñ it ci société bi. Mm-hmm. ñu ngi ñaan daal état taxawu ko bu baax comme état moo ko mën a taxawu. Euh, ñu ngi koy ñaan li bu baax it dëgg yàlla. jërëjëf. ñu ngi koy ñaanal bu baax wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal bu baax. yal na yàlla dimbali ko ba mu génne ci jafe-jafe yi ñu ngi koy xamal ni que ñu ngi koy taxaw fu mu toll ñu ngi koy ñaanal ko bàyyi xel aussi. jërëjëf. di ko bàyyi xel aussi ñu ngi ci gannaawam it aussi incha allah. Hmm, jërëjëf. ñu ngi koy bàyyi xel bu baax wax dëgg yàlla mais daal suñu xol suñu xol daal seddul ci lii xew nii ci moom. Hmm. bu ñu sañoon nag ñu dimbali ko kut koo kut daal. Hmm. waaw ñu ngi jégalu nag bu baax. jërëjëf ñu sant ko gërëm ko ko wax sunu xel dalul lay wax ko wax yi tamit état bi na ci wax lay wax. Mhm. état bee ngi fi lu xew. Mhm. lu xew. nit ñi dañuy wax ne ne jàngu euh, mais moom intellectuel la Mansour euh, dañuy ñëw tënk. Mhm. Euh, mais boo ko déggee. keroog am na am na am na ku ko wax. ñi bootu ci ginnaaw ku mel ni Bokar Samba Dieye bu ñuy tudd ku indi cent trois bato ceeb. nangami milliard ñaata borom kër la Bocar Samba Dièye di dundal tey bu ñu seetaanee ba maara day am ñooñu fu ñu jëm mhm. mooy la grande question même xam nga euh, mbokku téléspectateurs yi woote yëpp leçon bi li ngay dégg mooy xel dalatul mhm. ne serait-ce mentalement tey jii ñi nga xamante ni dañ noon bàyyeekoo nekk ay jeunes mhm. euh, ay ay commerçant ak yooyu noonu mhm. te bëggoonu dugg ci métier mi wala sax ñu nekk ci biir am xaalis boo xam ne bëggoon nañ ko dugal ci biir réew mi jaaral ko via banque wala leen dañuy tax tey jii ñu xalaat ñaari yoon bala ñu fay dem ne serait-ce que même loolu pertement la bu réy la ci réew mi te moment baa ngi nii tey nag ñuy ñaan yàlla yàl na yàlla gën a guddal fanam mais kii tey bi nii dina boo xamante ni topp Sénégal

exemple patent bo xamante ba paré mémoire la bo xamante mi ngi tok effectivement mm. mémoire am nga lu ñuy jox en exemple lu cëpp lu fi nekkatul la effectivement ñi di werante naan am na wala amul mais am nga yow lii mm. nga xamante ni moom toog na ni man fii laa jaar fa may mm-hmm. départ lii laa def raxas naa sax mm-hmm. euh, li nga xamante ni moom mooy ci restaurant mm-hmm. jóge fa def lii ak lii parcours la boo xamante ni lépp jaar ci lépp amul soo métier comme ni ñu koy waxee ci français xeebul dara xeebul dara dem ba egg fi mu egg tey ji buñ naree bàyyi euh, mémoire boobu ne serait que même bu fekkoon histoire bi demewul noonu sax ne serait-ce que même pour la mémoire collective. Mhm. war nañ ko mën a sauvegarder war a sauver le soldat Bokar Samba Dièye. Euh, ba Mansour saw euh, mhm. am na leneen tamit lu bari lu doy waar lu ñuy wax. Mhm. mooy est-ce que warutoon a dugg ci politique pour ñu dimbale ko. maanaam dañuy jàpp ne ku dem ba tollu fenn fii. Euh, yor yenn milliards yi il faut nga doon politicien pour ñu sàmmal la sa alal loolu tamit est-ce que nekkul problème loolu mooy erreur bu rëy bi ci dëkk bi te façon bu doon politique bi nga xamante ne orthodoxe bi nga xam ne moom fi nekk ci islam digle ko dootu problème c'est l'art de gérer la cité mais politique bi ñuy def léegi c'est juste pour dóor mën a am ay ay prébande mën a toog am benn force de pression boo xam ne da nga koy exercer ci état wala ci leneen ak leneen mouvement yi ngay dégg lépp looloo ko looloo ko fendi mouvement yi ngay dégg yépp ay mouvement de soutien yi kenn xamul yépp ci loolu jógee ñun nañ am boo xam ne dañ fay xoj état mhm. bu ñu soxlaa ci moom yenn ñu mën ko fa def mhm. malheureusement duggul ci politique mhm. malheureusement pour lui parce que am na loo xamante ni peut-être bu fekkoon toog est a laaj a noonu laaj waaw woowuñ ko yi réglé réglé wu non man nag ci loolu la ñuy tëjaalee sax émission bi man nag wax dëgg yàlla kenn mënu mosuma wax kaay politiqueal bi nga xam ne amuñu dara commencé yu ma jaay su ñu amul liggéey ñu ngi dikkoon ri 3 dañuy wax boo demee sànni kër euh, Samba Gueye xeer. ko nga ngi ànd ak Lamine ñun ñu ànd ak Senghor. Mm-hmm. carte baa ngi suma oto. d'accord boo sànnee xeer. Mm-hmm. coow am foofu ñu gis la yërëm la defe ne taalibe nga tey fekk yaa ko def yooyu caay-caay boobu. <laughs> waxtu waxtu waxtu may la fukki dërëm. Mm-hmm. dama leen bëggoon wax ni lan lan ngay tëjee. man li may tëjee. mooy usine yi fi man gis nga kii usine bii. Mm. usine bii dafa dem ba am cent treize milliards euh, cent treize millions.

d'accord loolu lay fayit lo d'accord parce que man. luy doon sa kàddu yu mujj waxtu wi jeex na. tàggat sama kàddu bu mujj mooy laal. Mhm. Euh, nit ki ci boppam. Mhm. mu am na ku ma wax ne yow est-ce que ubbi wa compte bitim réew ak yooyu mhm. ma ne ko suma bakkan ak ma alal lan moo ci gën suma alal man ak suma bakkan lan moo ci gën. mu ne ah bakkan bi ma ne ko wóolu naa suma bàkkan fii kon war naa fi wóolu lu ma am. macha allah. macha allah. macha allah loolu doy na sëkk ndénkaane euh, sama alal ak sama bakkan lan moo ci gën. mu ne sa bakkan mu ne ko gannaaw wóolu naa sama bakkan fii maanaam wóolu naa dëkk fii nii. kon wóolu naa fee bàyyi sama alal. li nga wax rek euh, Oustaz Mouhamed mémoire la. nga répété ko Fatima wax ko. mémoire mémoire la. ñu sant la bu baax a baax gërëm la. di la wax ne DTV nga nii. ndénkaane ngi nii heure bu soxla soxlawaatee jataay yu mel nii incha allahu taala. danañ ko amalaat gën ko yaatal ndax mbokk yi dañ ko yittewoo waaye maasu tamit ñu sant la baax gërëm la ndax li yëpp bu jàppandee ci yow la euh, ñu sant la bu baax a baax gërëm la sant mbokk yi doon seetaan yëpp gërëm leen di ñaan yàlla yàlla na yàlla réparé yëpp waaw état bi tamit na ci jël ay matuwaayam président Macky Sall renseignement généraux yi yéen a ngi bu seetaanu tamit renseignement généraux yi yéen a ngi seetaan dénkaane wax leen banque bi na ñëw régler problème am ak Bocar Samba Dièye ndax moo ko ameel ndax moo leen ameel mu mbir mi leer waaye mënuñoo toog mu leen di woo kaay leen ñu wax ñu bañ ne duñ wax di ko menacer pour jël ay bien ba tàmbalee jël ay këram bëgg ko jaay ci njëg goo xam ne nii tamit euh, mara day taali loolu noonu du encourager kenn ku nekk ci réew mi danañ bàyyi baatu jàngul ku jàng alxuraan ba wàcc ko jàngaat alxuraan ba wàccaat ko di nafar alxuraan foo toll mu nekk sa bopp bi boo jàngul kenn jàngul kon dafa jàng ba ne ar liñ ko bëgg a naxee fu nekk ñu jaar ko ba léegi sottiwul kooku li mu jàng moo gën lu di jàng muy wax sunu borom. fukki ak benn. mi ngi noonu. kon jàng bu kenn di wax naan dafa jàngul dafa jàng ba dee. kon nañ ko euh, encouragé nañu nekk ci wetam waaye injustice bi nañ ko réparé di leen sant di leen gërëm ci seetaan bi dund ak dëkk waaye waru waaye ko daay yàlla yombalal nu ko fan wu gudd wa ànd ak wér gi yaram yàlla defal nu ko yàlla defar sunuy affaire yokk sunu chiffre d'affaires sedd bu ànd ak xol bu sedd